sommes euh, aujourd'hui euh, mercredi ou jeudi plutôt, 14 euh, mars 2019. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la première chaîne de télé du Sénégal dans votre matinale ce matin c'est à nous ñu amaat mbégte janook yéen tey ji ci alxames gi yemook fukki fan ak ñeent ci weeru mars atum 2019 ñu gërëm leen ci topp gi file ci première chaîne de télé privée bu Sénégal rawatina ci seen matinale ce matin c'est à nous ñu yaakaar ni rek euh, vous avez bien dormi et que tey yeewu ngeen ci jàmm ñu fas leen yéen a gunge fii ba 10 heures incha allah dégtal leen li nga xam ne moom ngeen soxla euh, pour koy defee nag jeudi bu jot ci kanam tuuti dinañ ñëw ak soxna Nafissatou Dieye ci lu Euh, ci wàllub euh, culture daañu waxtaan itam ci li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu wér-gu-yaram ànd ceeg Moussa Moussa Sène ni ki tey ni ngeen ko xamee ñuy màggal euh, bis bi ñu jagleel wàllub rein ci àdduna warngel képp waral tey ñuy dalal ki nga xamante ne moom moo di Doudou Ahmad Sarr jiite association bi boot ñu amee feebaru roño ni ki tey nag dinañ ko fi dalal ci plateau bi ànd ceeg Moussa Moussa seen wàllub actualité ni ñu koy defee suba su jot bu ñu xëyee ni ki tey ñu fas yéene waxtaan ci lu jëm ci wàllub société bi ak ni muy doxee ànd suñu sociologue bi ñu fi nar a dalal di ji bi jaxate nar a waxtaan ci ni nga xam ne noonu la njaboot gi soppeekoo léegi dinañ ko yaatal ci kanam tuuti jàppale ni tamit euh, saay su dañuy ànd ak laxaat ngir mu ñëw ak ci lu jëm ci ay fait de société mu indeetu lu am solo nañ leen ko dégtal ci kanam tuuti waaye xam ngeen ni itam laataa loolu yëpp dinañ ñëw ci xibaar yi ànd ak yéen itam ci a fës euh, ci li nga xamante ne moom moo jëm ci yóbbulub suba si seen xibaar yi puisque ce matin c'est à nous c'est également une matinale d'information mu ngoog xibaar yooyu dañu koy daal di euh, door ak lu jëm ci niki tey euh, yam fukki fan ak ñeent ci weeru mars ñuy màggal ci àddina wax ngel képp bis bi ñu jagleel li nga xam ne moom moo di roño euh, ñu koy màggal nag ñaareelub jeudi bu weeru mars ci at bu jot mu yem ak tey ji kon li nga xam ne moom moo di thème gi nag mooy nees mën a def ba ñëpp amee ay roño yoo xamante ne amul benn lorange pour ñëpp waaye tamit ci àddina wax ngel képp mbir mu ni mel nag waral ba ñuy jëmal ci askan wi lu jëm ci wàllub sensibilisation ngir ñu moytandiku lu jëm ci feebar yi nga xamante ne moom moo di insuffisance rénale ak yeneen i feebar yi nga xamante ne moom mooy jàpp euh, roño ñu àndu ci Kawa Thiaw ak Lay Ndiaye ci caméra bi. le 14 mars 2019 doon date bi ñu jàpp ngir amal li nga xam ni mooy journée mondiale du rein ci thème des reins en bonne santé pour tous et partout. comme ni nga xamee comme dëkk yi nga xam ne bokk organisation mondiale de la santé day célébrer lu ñuy wax la journée mondiale du bés bu am solo la parce que si bés boobu danañu sensibiliser population bi pour ñu gën a xam lan mooy feebaru rein waaye aussi ñun suñu wàll dinañ wax jan jéegu la ñu def si xeex feebar boobu waaye aussi lan la nga xam ne moo ñu war a moo ñu waraat pour ñu gën a yokk xeex bi. ci ay kàddu amadu du Doucouré muy daal di xam ne ni gouvernement bu Sénégal mu ngi daal di jël bépp matuwaay ngir rek daal di jàppale ñi nga xam ni ñoo amee yooyu lay feebar. Euh, roño bu wër. pour ñëpp ak fépp loolu lu am solo la et loolu gouvernement du Sénégal mu ngi siy dox à travers lu ñuy wax euh, couverture sanitaire universelle à travers ñetti dimension benn dimension bu mooy lan la protection contre risque les risques financiers maanaam fexe malade bu ñëw am infection rénale wala euh, ñëw si issue sanitaire sa poste bañ ko yëg te loolu gouvernement Sénégal mu ngi siy dox. tey boo jëlee dialyse dana ne dialyse dafa gratuite au Sénégal loolu dimension boobu vraiment yaakaar naa ne am nañ fi ay jéego yu rëy ñaare dimension bi mooy lu ñuy wax la disponibilité de services de santé de qualité ku wax service de santé de qualité ñaari mbir la benn bi mooy ressources humaines maanaam nitu xarañ ñaareel bi mooy infrastructure ak équipement maanaam bâtiment yi Amadou Doucouré di wax ni fukk ak ñett région yu Sénégal daal di nañu am ay centre de dialyse. feebar roño gouvernement bi def na fi ay jéego yu am solo tey fukki région ak ñett am nañu lu wax centre de dialyse euh, au Sénégal tey am nañu 23 centres de jalis ça veut dire que centre de dialyse boobu tabax nañ ko équipé nañ ko am na médecin néphrologue. am na ay am na ay techniciens supérieurs te loolu mooy indi service de santé de qualité. seen objectif ci bile journée mondiale mooy sensibiliser population bi ngir ñu jël bépp matuwaay ngir dàqal li nga xam ni mooy jàngoro rein waaye tamit insuffisance rénale. Baba Thiaw ñu gërëm ko wax ci génn ko àdduna ki nga xam ne moom moo di Ndongo am ñu gën ko xam ci dogo mu doonoon nag boroom kër ci waykat bu mag bi di Kiné Lam ni ki demb nag suñu équipe doxantu na ba ca kër ga bi muy génnaa di nag fekk na mu tëdd ci lal bi ndax feebar bu yàgg moo ko tëraloon ca foofe nag njaboot gi daal nañuy àddu ci suñuy micro wax ak tam lu jëm ci naqar gi nga xam ne moom lañu ñu yendoo ni ki démb ñu ànd ceeg màgget Soirée Diallo mat na léegi Eiffage Sénégal ak société Kirène daal dinañ amal ab signature bu benn protocole mu ngoog ñu jégalu ci boobu la élément daal di jàll ci euh, beneen daañu dikkaat ci boobe euh, ci yeneen jotaayu xibaar wax ci police bi nga xam ne ñoom ñoo euh, fare fële ca Angleterre ñoom nag daal di nañuy teg loxo ci benn sénégalais yaatam toll ci ñaar fukk ak benn ci mbir yu nga xamante ne nag moom moo jëm ci faatuk kii di laal Camara ab étudiante mu nga xam ne ñu ngi ko faat foofee ca Manchester li nga xam ne nag moom moo jëm ci nekkinub sénégalais yi fare ca biti réew sampe bu ñu sukkandikoo nag ci sociologue bi di wuyoo ci tuuru Mamadou Wane la mu jàpp mooy ñi di sénégalais yi fare ca biti réew ñaare dañuy faral di déggoo waaye itam di juboo ci seen i biir ba sax di sàmmanteeg kaaraange mbir mu ni mel nag bu ñu ko gisee muy faatu gi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci ñenn ñi di ko jëflante ci seen biir la mën a fàttali rek mooy yenn saay dafay nekk ay mbir yoo xamante ne dafay waroo ak li am ñu ànd ceeg Amadou Diaw. xalam demoon na bay neex buum ndaw si di la ñu faat fale am ñu njort ni ay sénégalais ñoo ko rey laaj bi samp mooy naka la woy tukki yi bokk dëkk war a dundee. lu ñu gis moo doon nit ni dañuy jàppalante ndaxte soo nekkee foofu yu bari moo lay manqué soo nekkee foofu nekkuloo sa dëkk soo nekkee foofu dañ lay tuumaal soo nekkee foofu dañuy wax li la nga xam ne discrimination lay doon tout le temps. donc loolu waroon na tax ba nga xam ne dañu war a jàppandoo par exemple éducation diine lu am solo la mun naa wax ne sax téere la ci nga xam ne jafe-jafe yi nga ngay am. ñu bokk dëkk tasi bitim réew dañuy faral di jàppalante. waaye jëfin yi ni mel li koy sabab dafay bëri ba léegi bu ñu sukkandikoo ci suñu sociologue bi. mais n'oublie pas aussi que ils vivent dans des situations aussi de précarisation. de fois des étudiants se trouvent dans des situations de à la limite de de c'est-à-dire qu'ils sont, ils n'ont pas de bourse, ils ont extrêmement, la, vie est difficile, ils sont exclus de la compétition pour l'emploi, et, donc ils sont obligés de faire de la, ce qu'on de la dé, des, des, des métiers euh, de débrouillardise quelque part. Et des fois ils tombent dans ce qu'on appelle les, les, les, le champ de l'illicite. Et dans le champ de l'illicite, il peut y avoir, c'est un champ de rapport de violence Lalla Camara police britannique njort na ni ñaari sénégalais yi ñoo ko faat moo waral ñu teg leen loxo jamono ji nag enquête baa ngi wéy ngir ngir xam kan wala ñan ñoo faat ndaw si. ñu gërëm ko bu baax moom Amadou jaw mbokk yi foofee la ñuy yemande ci lu jëm ci flash d'information bi ñu ànd ak euh, <laughs> Mohamed Lawine Ka ci li gën a fës ci xët yu njëkk kaa yi génn ni ki jërëjëf euh, Seynabou Ndiaye ginnaaw bi ñu leen euh, nuyoo dalal leen ci ce matin sitanu dañuy dikk a yéen ak li gën a fës ci ëttu yëglekaay yi ñu dooree ko ak seyna bu euh, mi xëy fësal ci xëtam bu njëkk nag li jëm ci Idrissa Seck ni ki démb yëkki nay kàddu moom mi di Idrissa Seck ba tey euh, noppeegul ci élection yi nga xam ne dañ ko ca duma euh, moom mi nag am na lu mu yëkkati ci ay kàddu ku ca bëgg xam dara mën nga ibbi enquête quotidien le sud euh, le quotidien le quotidien xëy fasal ci xëtam bu njëkk Euh, ñàkk dëggal résultat yi tukkee ci élection 24 février 2019 euh, ba léegi second tour bu Idi noonee la ko quotidien xamle ci euh, tey suba ànd ak nataalub Idriss Seck mu yëkkati loxoom Europe micro tey ñaxtu Sud Quotidien xëy fësal ci xëtam bu njëkk lu ñeel ba tey Euh, présidentielle bu 2019 euh, bu ñenn ñi euh, yeme demee ci yeneen i activité moom Idriss Seck ba léegi ak ñu mu ña ngay ñaxtu tey xam xamle ni ñoom nag ba léegi ànduñu ak li nga xam ne moo di résultat yu tukkee ci scrutin bu 24 février 2019 Vox Populi xëy fësal ci xëtam bu njëkk Idriss Seck mi euh, xamle ni ndam li kat moom mii moo ko am te dañ ko foqati ci loxoom loole la Idrissa Seck xamle euh, ci déclaration bi mu amal euh, ni ki démb Seynabou Ndiaye 24 heures xëy fësal ci xëtam bu njëkk lu ñeel ba tey Idrissa Seck moomee Idrissa Seck se débâcle à livre blanc moom mi dafa fas yéene bindab téere boo xam ne téere bu weex la noonu lañ ko tubee ci tubaab livre blanc ñeel li nga xam ne mooy li mu jàppee ak càcc ci élection présidentielle bu 24 février 2019 réew mi xëy fësal ci xëtam bu njëkk idi 2019 euh, mi nga xam ne nag euh, moom dumoyu na euh, loxo bi ko Macky Sall tàll ci nataal yi sax Macky Sall mi ngi ko tàllal loxo moom Idrissa Seck woon ko ginnaaw ci nataal bi moo fas ci xët bu njëkk bu réew mi quotidien évidence euh, xëy fësal ci xëtam bu njëkk li nga xam ne euh, moo ñeel ndaamal kajoor ba léegi di di sa sekk euh, mi dëgërlu bu baax ca fa mu nekk maanaam li mu jàpp daal li mu màtt bàyyiwu ko moom mi nee na danoo fuqati ci loxoom li nga xam ne wala sax fuqati loxoy askan wi li nga xam ne moo di seen ab volonté seen ab bëgg-bëgg di seen càkkuteef Madické Niang moo fës ci xët bu njëkk bu l'observateur moom Madické nag tekki na ndombal tànkam euh, foofe ci assemblée national ni ki bés ni tey moom mii di euh, avocat bi déposé na lettre démission ci bureau bu président Moustapha Niass tey ji sax la ko war a déposé maanaam daal tekki na ndombal tànkab député moom mii di euh, Madické Niang Les Échos xëy fësal ci xëtam bu njëkk lu ñeel ki nga xam ne Euh, mooy euh, la xew foofee ca jaxaay attaque amee ab cong goo xam ne ña def dañoo yor ngànnaay foofee ca jaxaay de euh, te soriwul lool lii di sédiment lii di oto ñi nga xam ne ñoo di sambabo yooyee gis nañu ko police scientifique bi ma nga cay def liggéey bi ci war exclusif xëy fësal ci xëtam bu njëkk lu ñel li nga xam ne mooy financement yu candidat yu kujje gi présidentiel 2019 Amadou Ba moom mi euh, loxoom ca setu ca loolee la ñu exclu exclusif xamal bis ni ki tey Seyna bu Ndiaye mhm. euh, tribune xëy fasal ci xëtam bu njëkk lu ñeel li nga xam ne euh, mooy ak ak yelleef doomi aadama rapport bu département d'état américain lii di ñàkk def liggéeyub yoon fii ci Sénégal loole nag doon na loo xam ne neexut li nga xam ne moo di américain yi Dakar Times xëy fësal ci xëtam bu njëkk Euh, li nga xam ne mooy euh, visite bu président de la république foofee ci Abu Dhabi euh, lii ci nar a tukkee ci koppar loole moo fa si bu njëkk bu Dakar Times. Libération xëy addu ci leneen loo xam ne mi ngi jëm ci ñetteelu at ginnaaw bi nga xam ne attentat am na foofee ca Grand Bassam ca Côte d'Ivoire lii tukkee woon ci li nga xam ne mooy traque. ak euh, ñi nga xam ne ñoo def njombe loole ak euh, ramification maanaam euh, leneen lu ca la leneen lu ca laale maanaam Ndakaaru génn ci source a xëy fësal ci xëtam bu njëkk lu ñeel marché bi nga xam ne jamono ji ay armes légères ak lourdes fees na ko dell loole di moo fës ci xët bu njëkk bu source a critique xëy fasal ci xëtam bu njëkk nag euh, lu jëm ci euh, faatu euh, kii di Cheikh Touré foofee ca Tambacounda Cheikh Touré nag ab responsable politique bu APR la lii verdict bi am na ay vidéo yenu ca am chauffeur bu Ibrahima Ndoye moom tey ji lañu ko war a àtte wala sax le 25 mars maanaam ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars bi ñu jëm lañu koy àtte ñu àddu jëmale ci le quotidien national di le soleil euh, ni mu ko defee woon defaat na ko Ligue de champions Bayern Liverpool euh, trois buts à un impérial Sadio Mané Sadio Mané daal moo saf le soleil jamono ñu toll nii ba tax euh, moo fës ci xët bu njëkk ak nataal boo xam ne Sadio maane ma ngay jubilé di wane mbégteem ca but ya dugal. record xëy fësal ci xëtam bu njëkk lu ñeel ba tey Sadio Mané moomee yuuxu gaynde Sadio euh, roi de la Bavière loolee moo fës ci xët bu njëkk bu record stade xëy fësal ci xëtam mu njëkk nag lu ñeel kii di Sadio Mané euh, mi nga xam ne suul na Bayern Messi bouffe du lion nag ba moytul dina lekk gaynde loolee moo fës ci xët bu njëkk bu stade euh, quotidien ñu jeexalee ko Seynabou ak sunu lamb sunu lomb xëy fësal ci xëtam mu njëkk ci euh, cadeau boo xam ne no jàpp ne cadeau bu am tooke la ñeel Modou moom yi nag daa war a daan rek wala ay mbiram yem fa loole euh, la ko sunu lamb xam ne vaincre ou périr le 28 juillet maanaam ala kulli moom mii di Modou Lo war naa am dam lu ko mooy daal foofu la carrière di am Seynabou Ndiaye li moo nekkoon li gën a fës ci ëttu yëglekaay yi ñëwoon bégte dëkkal leen ko jërë ngeen jëf tey jii di. Euh, alxames yemook fukki fan ak ñeent ci weeru mars Ka mbokk yi dañuy température yi nga xam ne ni ki tey moom la ñuy sur le territoire national ñu doore koog Ndakaaru mi nga xam ne ni kon dina xëy ak lu yem ak degré ci ngoon si ñu nar a am lu tollook degré Cap Skirring 35 degré la ñuy xëyee gont ak 23 ca diwaanub Ndar Géej dinañ fa xaarandi température yu tollook degré ni ki ci euh, ngoon si ñu am 22 degré Ziguinchor 37 lay xëyee gontu ak 22 euh, degré Kaolack 37 degré lay xëyee ni ki ci ngoon si ñoom tam dinañu gontu ak lu yemook 21 degré Tambacounda 38 lay xëyee gontu ak 23 euh, waa tam dinañu xëy ak 35 degré gontu ak lu yemook 20 degré ci diwaanub Diourbel ñu fay xaarandi 36 degré niki ci suba si ngoon si 20 degré fële ca Kédougou foofee dinañ fa daal di am température yem ak 38 degré ci suba si la ñu xëyee gontu ak 23 degré Linguère 36 degré la ñu xëyee ci ngoon si fële ca Podor ñu fay xaarandi 35 degré euh, ci euh, buñ ca noppee dégtal leen lu jëm ci lever du soleil bi fii ci Ndakaaru ñu ko am ci 7 euh, heures mu tegalee 18 minutes ba ca teguwaa 19 heures 20 minutes lay euh, doon lu jëm ci horaire ub euh, marée haute yeeg marée basse yi jàppale ni marée haute bu njëkk bi ñu ngi ko daal di am niki ci guddi gi bi une heure du matin euh, tegale 29 minutes ba ca tegu dinañ ko daal di am ci diggu bëccëg gi à 14h et minutes li nga xam ne moo di marée basse bu njëkk bi kon 7h43 minutes la daal di am ba ca tegu ci guddi gi lay doon à 20h45 minutes mu ngoog mbokk yi loole lañ leen doon dégtal di ñaaxaat suñu mbokk nappkat yi ñu gën a sàmmonte ak lu jëm ci seen wàllu kaaraange ci géej gi ñu ànd ak oustaz Abdoulaye Gaye ci yóbbalub suba si laataa ñu nuyoon teg ñi nga xam ne. mbokki julli di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu seen mbokk daara Abdoulaye Guèye moo leen di nuyu di leen ziare ci di ñaan yàlla mu defal ñu bëccëgu jàmm te nangu ñu suñu jàmm yàlla yóbbalu tey bi day wax ni quand tout va pour le mieux dans ta vie n'oublie pas Dieu allahu akbar dafay wax ni boo demee ba yëg ni sa mbir yépp mu ngi dox ci sa dund lépp loo laal mu yomb lépp loo lijjanti rek yomb yàlla yombal loolu looy ut yàlla du ci def benn jafe-jafe projet boo taxawal yàlla sottal ko lépp loo xamante ni daal sa bëgg-bëgg la ak sa nammeel yàlla yombalal la ko ba nga amee ko ni nga ko bëgg sa njaboot na nga bëgg ñu mel ko ñu mel ko sa situation ni bëgg mu mel ko mu mel ko say am di jàmm ak say lu mu mën a doon na ñu mel ko ñu mel noonu lépp yomb ci yow daal nee na bu loolu amee rek li mu lay digal mooy bul naagu nee na bul naagu. loolu mooy li nga xamante ni moom la lay digal mooy na bàyyi xel sa borom bu baax a baax a baax te xam ne loolu du ak njàmbaar wolof day wax ni suuf bu sutantee dañu koo jal nit am na looy am loo xamante ni bul jàpp ni sa njàmbaar la xamal ni sa borom moo la ko baaxee naa ko nettalewaat ko ba ku ne micc mi nga yor ba ciy tedd di ci terle di ci dog buumi gàcce yi sa bisu ngénte nit ñëw na ci sa tudd yor métier moom lekk sa laaxu tudd yóbbu ca gorogo ak tàngal ja waaye yàlla dogal na métier mooma yow nga màgg yor ba ci terle moom la yoroon ba mu ñëw sa tudd te mënu cee faste xànc ak moroomam kon du yow waaye borom bi subxanahu wa kon bu mbir yooyu amee fàttalikul borom bi yàlla ngi koy wax waxoon naa leen ko ci suratul fajri fa amma al insaanu ida mabtalaahu rabbuhu fa akramahu wa naam fa yaqulu rabbi akraman nee na doomu aadama yenn saa su ma ko defalee ay xéewal yu yaatu naatalal ko yëppam dox yenn saa yi day fàtte ni man la ba gis ci boppam moo gis nga sant nit ñi dañu defee ni moo gën a jaf moo gën a yomb muñ waaye fekk ni yenn saa yi sax yàlla xam ne ni muñ mooy gën a yomb sant ndax ñaari nit moom bu amul pexe rek day muñ ndax boo muñ sa see muñ lay def waaye sant li tax mu jafe mooy da yëg sa bopp nit ñi dañ lay jey di la xamal ni la sa njàmbaar ak sa technique technique ak sa lijjanti moo la may lii waaye ku laaj qaaruna dootoo ko defati inna qaaruna kaana min qawmi musa fa baga alayhim wa ataynaahu min alkunuuzi ma inna mafatixahu la tanuu bil usba bari woon alal ba caabi yi tëj magasin yi sax fukki ponkal ñoo koy yëkkati pour mën koo tijji alalam bari loon na waaye da doon wax ni sama pexe ma ko may waaye yàlla wan na ko ne ko du pexeem waaye moom borom bi la kon daal lii bind tey bi di jàngale mooy lu mën a dox ak lu mën a mbir dox seen mbir fàttalikul sa borom te xam ne yàlla la yàlla ñu yàlla defal bëccëgu jàmm salaamaaleykum wa rahmatullah ko ñu gërëm ko baax moom Oustaz Abdoulaye Gaye ni ñu ànd ak moom suba su jot ci yóbbalub euh, suba si mu indeetu lu am euh, solo foofu lay jaar yoon teg ñi nga xam ne ñu ngi ci plateau bi ñu àddu ci li nga xam ne moom la doon seetaan léegi nii hmm. alaaji euh, Ajaratu maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar di la nuyu Seynabou Ndiaye di nuyu soxna Nafi di nuyu Ibrahima Balde suñu gan bi ak docteur Moussa Moussa Sène di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan euh, fii ci Sénégal rawatina waa Daara Jolof ak ci àdduna wërngal këpp waa Gabon waa Congo. <laughs> Euh, waa Mauritanie ak waa Mozambique donc euh, ñu ngi leen di nuyu. Oustaz Abdoulaye Gaye amet indati na lu am solo comme ni mu koy munul indi nag lu amul solo ndax lu tax li muy indi lépp ci xaalallahu xaala rasulullah yonent bi wax na yàlla wax na te loolu. mënul bañ am solo Seynabou Ndiaye parce que borom bi subhanahu wa moom lépp lu mu ñu digtal rek suñu njëriñ a ngi ci. lépp lu ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal suñu njëriñ a ngi ci buñ ci tegoo xayrun euh, ñu mucc bu ñu ci euh, teggee ko euh, suñu dara suñu dara du baax nee na nag lépp li nit ki di def daf ci war a xool borom bi subhanahu wa li baax li. ak sax li bon li boo demee ba nar a def lu bon boo ci xalaatee borom subhaanahu wa doo ko def booy def lu baax itam nga xool ci borom subhaanahu wa doo ci gis sa bopp maanaam jëf joo rek da ngay jàpp ne euh, dug njàmbaarte ak ndimbal li ñuy wax jàmbaar amul ku ñu dimbali moo am kon yàlla ñu yàlla may euh, ñu xàmmee ràññee ba xam yegg ci xam foo toll ni euh, lépp loo def rek doo ci gis sa bopp loolu nag loolu mooy loolu mooy dëgg-dëgg tawhid euh, tawhid dañ ko laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala sax euh, waaw tawhid mooy wéetal yàlla parce que lislaam ay catégorie la dafa am islam am ihsan islam mooy ñun ñëpp fi ñu toll maanaam gëm nga yàlla gëm nga yonent bi gëm nga malaayika yi gëm nga dogal gëm nga ni da nga war julli da nga war woor et cetera loolu mooy l'islam pratique les interdits et les recommandations mais am na ma xam bu gën a koy boo xam ne foofu la nit yàlla yi toll mooy ihsaan bi ñu laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko lan mooy ihsaan daf ne kan an taabud allaha ka annaka fa in lam takun taraahu fa mooy booy def dara rek na nga jàpp ne yàlla yaa ngi gis yaa ngi jàkkaarloo ak borom bi subhanahu wa taala nga par exemple tey maa ngi jàkkaarloo ak Ibrahima du ma def dara loo xam ne lu safanook li Ibrahima bëgg la duma ko def lu ko neexul mu ne loolu mooy ihsaan mu ne waaye bu fekkente ni yow gisuloo ko sax moom mi ngi lay gis mhm. fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak fa in am na nag fa in lam borom xam yi si wàllu maarifatu billaahi maanaam ci xam yàlla mhm. am na nuñ ko tekkee neneen fa in lam takun loolu nag beneen débat la euh, du ma dugg ci profondeur bi ndax damay bañ Euh, gars yi caaw ay ay yar. ñu euh, lii la nu koy waxee nu muy waxee kii rëq sa digg. <laughs> voilà fa in lam takun tara. tara jërëjëf <laughs> docteur Moussa Moussa Sène. naka mu tey li ma si jaaxal da nga nekk ci plateau bi booy bi yaru lu xew noonu. ah ko jël ci suuf. te yaru na de day daa jàkkaarloog yow ne pat <laughs> naka la demee noonu. dañu ah, waxtaan ci suuf quoi. ñu ngi lay nuyu mbokk téléspectateurs yi ziar leen ñaanal leen jàmm te koy sàkk ci ñoom aujourd'hui y a olympique hmm. ah. waaye nag. xew noonu. ñu tàccu rek dem. consultation yi métti dem. <laughs> cabinet bi dafa dafa guddee tëj nekk ci suuf da nga kaa bañ a yéegal ci kaw. di nekk si suuf te nga bañ a yéegal ci ci suuf la. Hmm. xaw ma ko woon nag. ne woon naa la saa ñu dajee jour yi ma jox la benn numéro ci meeru Jasab. ñaari jours yi la. allahu akbar alaaj bul waxati da ngay noppi nag. ñaari jours yi la des. da ngay noppi. non c'est que. non non da ngay noppi. am na ay figure de style yoo xamante ne il faut nga koy comprendre en fait man lay waxal mais am na leneen lu ci wul. numéro bi leneen lu ci wul numéro bi motagul numéro bi motagul quoi. te ñaar a ci des. ah kon nag góor góor ñaari chiffre a ci des. daa soxla. yarul alaaji boo yàqalee sa bopp nag. est-ce que. loolu Kaar la ni nga def sama góor neexuma <laughs> nuyoo la ñuy seet. sama defar la ngay alors donc euh, ñu nuyu donc di nuyu suma copain Ibrahima di nuyu hmm. Nafi di nuyu donc monsieur Sarr. Doudou Ahmed tey moom la ñu dalal Nabou. Hmm. justement donc pour waxtaanee. lu jëm ci prétexte bi nga xam moom mooy journée mondiale euh, lu jëm ci wàllu euh, rein mhm. tey bu ñu ko waxee rek tey laal ñi nga xamante ni ñoo di hémodialysé yi di mhm. laal insuffisant rénaux yi mhm. loolu nag moom solo tey ñu fas ni ci dalal waa ASIR ASIR nag nekk nañu association bu nga xamante ni ñoom it lépp lu jëm ci wàllu hémodialysé ak insuffisant rénaux yi nekk ci Sénégal fii ñoom donc ñi ngi ciy yëngu te boobaak léegi yàgg na. Mm-hmm. du tey xëy na ñu dalal euh, sëñ Sarr mais bëgg nañu bu ñu nuyoog téléspectateurs yi ba noppi. ñu mm-hmm. waxtaanee tey tolluwaay bi. Mm-hmm. ak xayma gi nga xamante ni moom lañ ci am mais surtout aussi le plaidoyer. comme que ñoom it tey am na foo xamante ni fa lañ taxawee. ndaxte bu mettee ci ñoom la ñoom ñoo koy yëg am na luñ ci xam ñu bàyyi la tey. nga nuyoo. asalaamualeykum wa rahmatullah euh, ñuy béggeewaat di teewewaat fii encore ndax bare na lu ñu ñëw toow fii mm-hmm. waxtaan ci wàllu jalis ci Sénégal mel mm-hmm. euh, lii gën waral mbégte mi tey mooy association sénégalaise des hémodialysés et des insuffisants rénaux mm-hmm. depuis 2009 mi ngi yëngu ce qui signifie donc mi ngi àgg ci dix ans d'activité tey suñu wëlbati ko waatee encore yéen 2STV yi ngeen am yitte ju toll na invité ma ma ñëw toog fii war a ko waxtaane séq ko ak ñoo xamante ne xëy na ay ndaw lañu wala ñu gën ma suufe ci at mu yitteel leen ba ñu bëgg ku ci waxtaan donc dafay am solo. Mm-hmm. ndax euh, euh, tey bu fekkonte ne am naa cri de cœur bu may wax dinaa wax ni da ngay gis lu gën a ñàkk solo. lu mel nag anniversaire mën naa tudd Bob Marley du wàññi dara. Mm-hmm. bu doon moom la tey rajo yëpp ci riir di ci wax. Mm-hmm. mais tey bu ñu ñëwee tey mu nekk journée mondiale du rein. mu concerné kenn ku ne ci ñun. ndax soo jëlee tey. thème bi nga xamante ne année bi moom la ñu wax ni nañu ko développe muy des sains reins des des des sains des reins en bonne santé mm-hmm. pour tous et partout mm-hmm. Mm-hmm. xam nga loolu ñëpp la concerne muy ñun ñii fi toog di suñuy njaboot di mante mu doon donc kooku ñëpp la concerné lu mel noonu bon am na solo solo goo xamante ne rein yooyu nga xamante ne moom la ñuy waxtaane tey ku ko sàggane ba mu feebar ba yàqu moo lay dugal ci ngay dem defi jalis mm-hmm. bon xam nga ne loolu am na solo lool mm-hmm. devoir la ci ku ne ku mu mënte doon nga surveiller nga xam moom mooy lan. Mhm. ndax li ngay surveiller faw nga xam mooy lan. dinañ ci ñëw ci kanam tuuti yaatal ko ak ki nga xam ne moo di Moussa Moussa ndax li mu ko waxee. Mhm. ñun ñëpp épargné wuñu donc euh, il faut que rek ñu xam wala jàngat bu baax a baax li nga xam ne moom mooy situation wu. Mhm. ñi amee feebaru prognon fii la ci euh, Sénégal. soxna Nafissatou Dieye. bonjour Seynabou. bonjour maa ngi lay nuyu bu baax di kontaan lool ci teewaat bi ma teewaat fii ci plateau bi nuyu ñi ma toog toogal nuyu sa Emel lan ngay e def. non dara ci toute souriante rek. nuyu Ibrahima nuyu suñu invité bi tous les matins sur ce matin c'est à nous comme ni ñu koy tous les jeudis on va parler de culture mais aujourd'hui on va parler de peinture avec un artiste qui peint d'une manière vraiment extraordinaire moom dina fi ñëw tout à l'heure pour ñu waxtaan ci anam bi nga xamante ne xëy na moom lay euh, liggéeyee def fi ay performances bu soobee merci beaucoup c'est pas un charlatan voilà c'est le mot qu'il que j'attendais Ibou la wax ci performance man kat damaa jom <laughs> man kat damaa jom mi nee na performance Ibou nuyoo la ñuy def performance parce ah? que ça s'appelle comme ça waaw hmm. mais je savais pas moi tu sais il y a am na benn dialecte culturel boo xamante ne peut-être miinu ma ko moo tax dem bi mu ko waxee ma def ci benn point d'interrogation ko moom ñoom ñaar ñuy expliquer <laughs> mais maa ngi nuyu suñu mbokk téléspectateurs bu baax a baax ah. nabu sama gan a ngay taxaw di euh, Djiby Diakhaté ah. tey dinañu waxtaanee li nga xamante ne moo di contexte bi ñu nekk nii ak euh, li nga xamante ne ñu ngi koy nemmeeku ci euh, cadre familial donc dinañ au moins ñëwaat ci li nga xamante ne moo di naka la société bi di di doxee jamono ji ñu toll ak li nga xamante ne ñu ngi koy nemmeeku ci li nga xamante ne moo di rey yi ak <laughs> yenn yenn yi nga. tu as un sérieux problème toi. Euh... moom ngay ah. amul problème bàyyi ma bàyyi noonu parce que yow ak MLK moom. Mm-hmm. Oh il faut que benn matin ma. nga lan defal ñu bagage. non non. after after Moussa Moussa. oui jox ay affaire rek. numéro bi numéro bi wala. non bàyyi numéro bi musuma la ko laaj. ah. docteur ne ko numéro bi wala. dégguma li nga wax de. te yaa koy jox ba mu des deux chiffres. dégguma li nga wax de góorgóorlu rek. man tey ngaa jàpp ci numéro bi Moussa. bàyyi say ngay def <laughs> baax na. ah kon baax na. ayca docteur. ay ci kon euh, nabu ñu soobu ci waxtaan wi ndaxte ah. nag euh, euh, sëñ Amet jot na ko daal di junju sànq mu jëm ci wàllu li nga xamante ni moo di mm-hmm. rôle bi rein am maanaam mm-hmm. olof naan ko roñoom mm-hmm. solo gi nga xamante ni am na ko ci dund doomu aadama parce que boo xoolee nekk na cër boo xamante ni suñu borom defar na ko muy ñaar ci nit mais mu doon seul organe boo xamante ni ci nit bu benn bi manqué teewul beneen bi mën na dund tey defal rôle bi nga xamante ni moom la beneen bi doon moom la ñaar yëpp doon def. Mhm. loolu mu doon lu am solo loo xamante ni tey bari na ci nit koo xamante ni yaa ngi ci gàllankoor wala jafe-jafe loolu nga xamante ni moom moo laaleek roño bi feebar bu koy dal loolu dina ci indi ay jafe-jafe yoo xamante ni donc dinañu permettre tey ñu taxaw seetlu ci tuuti. Mhm. di fàttali tamit ni jalis bi nga xamante ni wax na ko du feebar sax parce que nit ñi dañ naan feebaru jalis mhm. waaye technique la bu nga xamante ni moom la ñuy def xëy na ngir fexe ba nit ki nga xamante ni amee na li nga xamante ni mooy maladie du rognon mu mën a am euh, lenn loo xamante ni tey dina ko mën a dimbali ci rôle bi nga xamante ni euh, rein bi doon na ko def mais Ahmed tey dañu bëggoon rek. Hmm. natt lu jëm ci wàllu situation bi. ba ngeen hmm. tàmbalee. Hmm. di liggéey ba léegi. dix ans a ngi nii. Assir nekk ci combat bi. situation bi tey buñ ko doon xool yemul rek ci Dakar. ak ni mu mel. lan ngañ ci mën a wax tey. waaw kay dinaa bëggee di ci wax ndax li jiital que ma ciy bëgg. Euh, plateau bi ni ko ka waxe sànq daf ko indi ci diine daf ko indi ci diine bi mu ko indee ci diine eh, li wala fii di wax naan woo nga naar ci guuxum soow hmm. eh, dama ci fàttali rein comme ni nga ko waxee léegi ñaar la yoo xamante ne mi ngi ci gannaaw nit mais xoolal ñaar yoo xamante ne yàlla moo ko bind boolekaay yow tolluwul lu dul doomu ñebbe hmm. di mën di segg lu man mille huit cent litres de sang mais xam nga foofu dafay jar taxaw seetlu hmm. mais borom bi li nekk ci doomu aadama yëpp yëpp yëpp yëpp waxuma ko dañ nga jël ci ñaari rein rek. Mm-hmm. ak kéemtaan bi ci nekk. nga xam ne bu yàqoo machine douze million ngay indi. Mm-hmm. tëdd kat ñeenti waxtu mu fës ki yéene def ngay fay xaalis bu bare. Mm-hmm. lu mu néew néew nga war a ko def ñetti yoon ci semaine bi. mais est-ce que bën mën nga fay borom bi. mënoo fay borom bi. xoolal li mu la defal. ak limbu lay jëriñ est-ce que war nga ko sàggane ba muy yàqu mais waroo ko sàggane ba muy yàqu mais gannaaw ba nga xamante ne ñun yàlla dogal na ñu nekk ay gëm l'islam waxuma waxuma mu'min waxuma jullit mu'min ñu nekk ay nitu lislaam ñu gëm mu tegaat ci ñu nekk ñoo xamante ne ihsaan bi daf ci am solo mais gannaaw ba ñuy nekk ay noon fa ida alladi baynaka adawatun wa annahu kawliyun amin mais li la war rek mooy wa ahsin kama ahsana allahu ilayk mhm. yow rafetalal ni yàlla rafetale ci yow mhm. yàlla bind na la jox la ay cër mais li la war donc mooy nga sàmm cër yooyu mhm. nga ñoŋal leen ba ñu baax ndax ni la ko yàlla sante kat yow cër yi mu la jox may la ko gratuitement soo ko sàmmulee mu yàqu yow yaay loru yow yaay loru ba nag moom yàlla bind la la ko ni mu war a bindee rafeta la naka ni mu war a rafetee teg naka foo xamante ne kenn du ko gis di jëppi saxaar kanam ngay jël nga xool fii ba cër bu ne fa mu war a nekk ni ko fa yàlla tege ba mu rafet lool ba ku la xool sax kontaan nga wëlbatiku li nga xamante ne moo lay servir pour que nga mën dund aisément mu tegal la ci gannaaw ñaari reen yoo xam doo ko gis doo ko yëg bare na kon naan dafay metti te fekk mettiwul mhm. leneen a metti mhm. comme ni ngeen ko xamee yéen docteurs yi mhm. donc loolu tey jii ñu ni kat bon dañ ñu fàttali rek ni kenn ku ne li la yàlla may ba mu nekk ci yow kat góor góorlu nga sàmma ka ndax boo ko sàmmee bu baaxee rek doo àgg fu ñuy waxee insuffisance rénale bu ko defee association bii nga xamante ne mooy ACHIR ñu di ko wax association sénégalaise des hémodialysés et insuffisants rénaux association la boo xamante ne depuis 2009 la taxaw mais balaa moom mu doon am fekkoon na amoon na yeneen association yu amoon mu doon ASTIR mm. amoon na APTRA mais yooyu ci hôpital Dantec kese la yemoon yëngu-yëngu ba ci hôpital Dantec kese la yemoon amoon nañ ñoo xamante ni ñoom rek la concerné woon ndax booba temps hôpital Dantec kese moo fiy def dialyse mhm. Mhm. ak set machine mhm. set machines donc lañ daan compter ci malade weesuwuloon une dizaine ou une vingtaine maximum foofu la yemoon ah ñun bi ñu ñëwee fekk ñoom xam nañu ni malaat yi kat képp koo xamante ni yaa ngi leen di jàppale war nga xool bu baax fi nga leen di jàppale te ki ngay jàppale tamit na xam li nga koy jàppale lan la li ñuy wax toujours ce que tu fais pour mois sans mois et contre moi donc malade yi suñu ñëwee bokk ci affaire bi ndax xam nañu feebar bi ñoom ñu jàpp ji loolu dafay gën a am solo mais malade yi tamit daañu néew doole néew doole gu toll na am na lu ñu war a mën te xëy na daañu néew doole ci defal ko seen bopp hmm. su yàlla dimbalee ñeneen ñoo xamante feebaruñu comme ku mel na man feebara guñu comme j'ai l'habitude de dire ndax feebar bi kenn mucc ci hmm. ki nga xamante ne feebaragul ba mu ñëw jàppale leen mais jàppale boobu dafay gën a baax. Hmm. ndax loo mën yow mi feebar mais ki feebarul moo la ko gën a man hmm. bu boobaa loola nag moo indi woon association bi ñi nga xamante ne ñoo ko mës a jiite. kenn feebaru ci wax dëgg yàlla ah xam nga kenn rek koo xam defoon na ci intérimaire ndax ba muy door a commencé ku ñu doon wax monsieur Mohamed Soumaré moo ko jiite woon def ci liggéey bu am solo. bi mu yàlla dogalee mu jeexal liggéey bi mu ci doon def ndax yeneen responsabilité benn malade ñëw ku ñuy wax Mohamed euh, du Dieng. moom itamit ñëw jiite ko ba yàlla ñëw ci moom mu génn àdduna ci laay dooraa man ñëw jël association bi fekk man sama rôle dëgg dëgg ci association bi mooy le responsable chargé de la recherche des moyens mm-hmm. mais loola yàlla dogal na sax fekk jiitu nañ ñu di ko def depuis 1996 di dimbali di jàppale malaat yi mm-hmm. kooku loolu mooy li nga xam ne moom lañ ci def alors que foofu li nga xamante ne moom la ñu jëkki woon ci association bi mooy fexe ba ñii nga xamante ne kat ñoo am feebaru roño bi nañu leen xam nañu jëm xam ñan la. Mm-hmm. bu ñu jéemee xam fan ñan nan ñan la. bon faj bi bu yemee Dakar kese kese kenn du ko mën a expliquer. Mm-hmm. lan moo war bu ñu demee ba xam ñii nga xamante ne kat ñii ñoo feebar ñu fexe ba créer ay relation ci seen biir nga xam ne daañu mën di waxtaan daañu mën di dimbalante di kokkante xel. ñu ni bon léegi lan mooy jaadu ndax ñi feebar ñëpp dëkkuñu dakaar uh-huh. est-ce que ñi feebar ñëpp dañu war a ñëw dakaar déedéet. bon lan mooy jaadu la maillage du pays nañu fexe ba centre de dialyse am fu ne. Uh-huh. centre de dialyse nañu fexe ba mu am fu ne bu ñu amee centre de dialyse ba mu am fu ne garab yi nga xamante ne itamit ñoom la war a àndal nañu góorgóorlu def tu ba garab mën a am partout. Uh-huh. suñu fexe ba garab am centre de dialyse am. yooyu dana dimbali nit ñi ndax man condition bi nga xamante ne moom laa faral di wax dama naan na nga am foo fajo na nga am ku la faj mhm. na nga am loo fajo d'accord soo amee foo fajoo muy ñu créé centre de dialyse mhm. dama ci teg ni na nga am ku la faj mhm. lan nga ciy dégg mooy bu ñu yittewoo tabax ay centre kat war nañu yittewoo ci defar former le personnel médical. Mhm. léegi boo seetloo ba ñuy tàmbali néewoon na néew boo xamante ne benn professeur agrégé en néphrologie kese moo fi amoon. je peux le citer monsieur Bokar Diouf. Mhm. ñu wëlbatiku le professeur Baba euh, Abdou mhm. ñëw ñaareel ko ñu góorgóorlu. professeur El Hadji Farika ñëw ñetteel leen donc loolu rek moo amoon mhm. tey nag fa tabarakallahu on peut plus les compter au bout des doigts bon bon euh, situation am na bi ñuy commencé nee naa la benn la ñu amoon tey ñoo ngi ci vingt trois mhm. bon bu fekkonte ne dañu tolloon ci campagne politique su ma ko waxee ñu ni damay politique moo tax mais état bii nga xamante ne wax dëgg yàlla moom moo fi nekk ak ñi fi nekkoon def nañu ay efforts yoo xamante ne waaye bee tax nit ñi yëguñu ko waaye nag wax dëgg yàlla góorgóorlu nañ. d'accord alors ci coup bi buñ doon wax jalis rek kooku mos a dégg day mos daal di tiit. parce que xam nañu ni. Mhm. ci jamonoy Abdoulaye Wade buñ daan wax naan soixante mille. Mhm. donc mu doon mhm. coup boo xamante ni dafa metti woon taal. dem bay ay jamono ñu wax ay waxu dix mille francs. mais ba tey ñu gis ni sànq da nga wax loo xamante ni dafa am solo. te loolu moom mooy jafe-jafe yi. système sanitaire bu Sénégal. mooy que ni ñu am souveraineté sanitaire. nekk Tamba. la citoyen. territoire bi mu nekk. man fa am. li mu soxla ci accès. par rapport ak santé moo xam ressources. humaines bu mu mënti soxla ak infrastructure bu mu mën a soxla. avec le coût bu mu mën a daal di supporter. tey ñu gis ni Sédhiou ñu ngi fay wax. ni mi ngi gën di développer. lu jëm ci wàllu insuffisance rénaux yi. Saint-Louis bi nga xamante ni tey jii nii mënoon nañu ni référence lañu ci dellu nañu ginnaaw. par rapport ak accès ak matériel bi nga xamante ni am na. jafe malaat jamono bii buñ mhm. naan dafa tar mhm. liste d'attente yi nekk fa mhm. fan la nekk waaw léegi xam nga euh, comme ni ñu waxe woon sànq euh, euh, dialyse bi comme dañu waxoon sànq ni dante kese la woon ci établissement public parallèlement amoon na ay centre privé centre privé ñoo daan fay soixante cinq mille Dantec cinquante mille la woon te moom rek moo fi nekkoon te ñu doon defi néew na lool ci loolu bi ñu commencé yëngu ci wàll googu wax dëgg yàlla euh, ku ne ba nga ca tolloo amoon na fondation yi nga xamante ne moom la euh, soxna sa jiite yu réew yi di am mhm. ci jamono le président Abdoulaye Wade mu amoon fondation éducation santé boobu euh, soxnaam jiite woon que ci la jàppale moom moo ñu jàppale itamit ba ñu def Euh, nuit de solidarité bi. Mhm. bi ñu defee nuit de solidarité ba ci la ñu fexoon ba am ci cent cinq millions. Mhm. donc moom itamit jàppoon na fi nga ne fa la ca waroon jàpp. Mhm. bi mu fa jógee xam nga président Abdoulaye Wade bi ñu ko rendre compte du temps de Souleymane Ndéné Ndiaye ci la ko réduire de cinquante mille à dix mille. bi yàlla jóge dogale ñoom itam ñu jógee fi la président Macky Sall ñëw. président Macky Sall moom itam moo ko rendre gratuite. Mhm. bi mu ko rendre gratuite tamit soxnaam itamit def ci lu am solo lool lool lool ndax lu mu bon bon apporté na cinquante cinq millions boo xamante ne joxe na ko pour nit ñi mën ci jàppale dimbali ko ñu yóbbu ko wàllu centre ba centre boobu la mu ca joxe woon si ne itam mu xeeb ka ndax ba mu ñëwee ba gisal boppam xam ni moom kat li mu joxe dafa mel na dafa mel na euh, euh, tuuti la lool mu xeeb ka nag. Mhm. ba mu ko xeebee ci la wëlbatiku dans le cadre de la société la responsabilité sociétale mu waxtaan ak benn société société bi jël ko mu war a nekk quatre cent millions. ba xam coow loolu wala wàllu xaalis boobu dafa xawoon jur coow wala. ndaxte bariwul amul solo. ndax kooku ñàkk xam rek moo koy waral ndax euh, ki nga xamante ne damay ñëw di la dimbali su ma ñëwoon ci borom kër gi may ko dix mille ni dama lay dimbali soo say njaboot taxawee ni dañ ko war a séddoo. problème day ñëw. Mhm. yow li am solo mooy nga jox ko sa soxna mu dem marché dugg indi jox ni ñi lu ñu lekk. Mhm. yaakaar naa loolu moo am solo. Mhm. donc li ca des ku teg ko kuy wax da ngay wax rek loolu la neex mais xamoo ca dara. ndax eh, coow la la mu doon gën bare mooy Achir warul tabax centre de dialyse. mais boo tabaxee centre de dialyse ay nit ñëw di fa faju est-ce que yem na ak nga jël xaalis nga séddale que nit ñi ñan nga koy séddale ndax danga koy jox ñi la neex wala ñëpp a ko bokk bokk bu ngeen paree mu jëriñ la. mungeen pare mu jëriñ lan léegi ñu dañ ci dugg si ci jafe-jafe yi nga xamante ne am na bi ñu demee ba gis nombre bi feebar bi bare na barewaay boo xamante ne mais kenn xamul lii lan la il fallait donc ñu étudier lan moo waral prolifération bi lan moo waral yokk bi nit ñi yokk mm-hmm. léegi loolu ba tey ñoo ngi ci di étudier mais loolu mën nañu ko déggee ci façon bu gën a yomb mooy ni nga xamante ne tàmm nga ko docteur yi di ci wax gu guddeeg bëccëg mooy manger moins gras lekk leen lu gën a néew dawlin. manger moins salé lekk leen lu gën a néew xorom lekk manger moins sucré naan leen lu néew sucre waaw yow man euh, MLK ak euh, soxna yu jekk yi toog ci plateau bi ndax boo xoolee ba ci biir. bu ñu la joxoon tey sa café tuuti li nga jëkkoon mais yow sa café gi sabul dara sucre suñu la tegalee plaatu ceeb boo xamante ne mu ngi nii ci kaw taabal ji soxna ci sa waañ wa sucre euh, euh, xorom naka ba pare lan ngay def am na loo xam ne mu ngay jë rek commencé di ceeb léegi yow finalement suñ nee la lekkal lu ñàkk xorom yow lan ngay def waxuma xorom bi nga xamante ne def nañ ko da ngay ñëw sa sa kii di di mm-hmm. teg di gën a sabal donc te yooyu ñun la yii mooy yi nga xamante ne mu gën a bare ci li yàq roño bun kenn ku ne da ngay bàyyi xel côté boobu sunguf ak reen hmm? dinaa ci ñëw mën naa ci mën naa ci ñëw euh, wax nañu la itamit lu mu néew néew docteur yi tamit ngeen ko tàmm ngeen ko wax ngeen ko ba tey hmm. lu mu néew néew na ngeen jël au moins une trentaine de minutes di ko dox ak di ko wax hmm. defuñu ko ñun ñëpp kenn ko ne da nga tëdd. Mm-hmm. beneen bi ci gën a gravité encore mooy wàllu obésité bi. Mm-hmm. kenn ku ne bu dee sama mbokk ndar ndar yi bala ñuy kontaan jigéen ñi rek nga nekk ngantum diriyanke boo xamante ne da ngay direeku <laughs> ba kooku coow problème ñëwati na mhm. beneen bi nga xamante ne itamit mu yeneen wala boog yeneen ñaar yi nga xamante ne ñoo ci a gravité encore wax nañu la jabet Sénégal gi kan moo fi jabetul daanaka daanaka ñëpp a hmm. la hmm. hypertension boobu itamit daanaka koo wax ma la sama tension bi moo yëpp dafa nekk yoo xamante ne boo def nag mën na jëmale fii lan la daan wax bu fekkee am na mathématicien ci seen yéen. ci seen biir lan laa daan wax dama naan dañ naan dañuy jël la population sénégalise yëpp mu nekk ensemble A. Mhm. ñëpp sañ nañu dara jotu leen. Mhm. mais malheureusement ñuy dox tuuti rek ba yàgg am ñu hypertension am ñu diabétique. Mhm. muy ensemble B. ñu wëlbatiku ak tuuti am ñu am hypertendu mu nekk ensemble C. ñu wulbutiku ni am ñu amee insuffisance rénale. muy ensemble D. Mhm. mais malheureusement boo defoon donc am na ñoo xamante ni bokk nañ ci élément la ñu ci ensemble yëpp. Mhm. est-ce que insuffisance rénale bi moom élément la ensemble yëpp. Mhm. voilà en fait euh, je pense que résumé nga résumé nga li nga xam ne. parce que c'est étonnant boo déggee ñu ne. le chiffre c'est huit cent. Euh, sept cent et quelques. sept cent. voilà c'est-à-dire ñii insuffisant rénal. le chiffre est alarmant. bon mën nga ko. ci mën nga ko estimer. Mhm. ay estimation six cent cinquante mille par exemple. voilà presque vingt mille par année lañ lay mën a xam nga loolu. c'est c'est ça fait peur. Mhm. ça fait peur te je pense que junj nga ko wax nga ko sax en fait résumé bi. Mhm. c'est-à-dire dafa nekk loo xam ne lépp dafa aju ci. comportement alimentaire. am na lu euh, mm-hmm. docteur Moussa wax léegi. Mm-hmm. loolu tam man. Mm-hmm. dama bokk ci ñi gëm ni. Euh, prolifération wala explosion. bi nga xam ne feebar bi am na ko. loolu am na ci rôle bu ama am solo bu mu ci kii. muy sunguf yeeg. reen yi xam nga ci suñu ci suñu aada da ngay dégg ñu ne la. Euh, bu njëkk ah xëy na peut-être les comportements yi changé. boo boo daan lekk ceeb. bu jën boo dankul ba ba diwlin bi <laughs> <laughs> jaar nii dafay mel ni. togg ceebu jën bañ na ay une tuuti niinal sa ceeb. waaw pour te dire à tel point que. ceeb bi dafa war a nii ceeb bi dafa war a nii. <laughs> ceeb bi dafa war a nii loolu c' est tellement euh, <laughs> dangereux. Mhm. leneen li mooy. Mhm. ñun sénégalais. Mhm. Euh, ci suñu wàllu santé. on n' est pas très regardant. te wax nga ko sànq. wér gu yaram. sàmm sa wérgu yaram ci jaamu yàlla bokk yàlla daf ne laa taqtulu anfusakum bu leen rey seen bopp te lépp lu nit ki def rek mhm. te mu koy jural loraange boo ko defee te c'est égal même au suicide rey sa bopp euh, man dama euh, mhm. fi nga xam ne moom la daanale mhm. ci wàllum estimation chiffre parce que gis nañ ni à chaque fois journée yi ni mel wax ci insuffisant rénal octobre rose tamit suñuy ñuy wax yi cancer lu tax waruñu mën a am ay chiffres yoo xamante ne au des études mm-hmm. autorité yi mm-hmm. ñu mën a def ay prise en charge mm-hmm. xam point de kii point yi nga xamante ne beneen aspect bi ma bëggoon aussi nga nga ñëwaat ci mooy loi sur la transplantation d'accord au moins foo leen ci toll ci wàllu euh, plaidoyer d'accord ñoo ngi ci ci wàllu chiffre bi ndax bi nga xamante ne itamit ñoo ngi calculer di xool ñi mu am ñi mu dal dañuy dressé benn liste au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec liste boobu moom ngay dégg ñu naan liste d'attente léegi bi nga xamante ne dressé nañu liste bi expliquer que malaat yi ñu ni leen liste bi kat mooy képp koo xamante ne ñëw nga fii ba ñu defal dépistage ba gis ni yow tu as tu fais partie des malades euh, yi nga xam ne dañu am insuffisance dañu lay bind fii en attendant euh, que place am foofu malheureusement comme j'ai l'habitude de le dire ndax liste d'attente bi liste d'attente la tudd mais malheureusement li ngay attendre lan la mm-hmm. li ngay attendre mooy kii dee mhm. bu deewulee yow mi nekk ci liste bi yow yaay dee parce la mhm. maladie n'attend pas la moom du xaar mhm. mais boo la bu ñu la bindee ci liste bi ngay xaar Dantec comme ni ma waxee ñu def maillage du pays supposons ñu jël Dakar après annexe bi amoon Dantec ñu dem Ogi créé fa centre de dialyse mais malades yi woon fii ñooy daw foofu ñoom itam bind malade yi ñooy ñooy daw foofu bind fa. Mhm. su fekkente ne itamit dañu def liste Saint-Louis. mais malade nga xam ne yaakaaruñu ni mën nañu am fii place ñoom ñooy dem ndar bindu fa. bu ñu créer list bu ñu créé centre de dialyse Tambacounda malade yi dëkk booru yooyu yëpp ñooy daw foofu ñoom itam ñu bindu fa. boo demee Ziguinchor malade yi nga bindoon fii yëpp ñoom ñoom itam ñooy daw bindu fa de sorte que problème bi li ci gën a wu mooy list d' yi dafa nekk liste d' attente boo xamante ni dafa bari doublon. Mhm. dafa bari doublon uh-huh. alors que bi ñu waxtaanee ci biir ci au niveau du ministre kii euh, au niveau de la direction générale euh, non de la direction sax générale euh, de la santé DGS ñu ni daal léegi li jaadu mooy ñu def benn liste homogène uh-huh. benn liste rek lay doon boo xamante ni daal nekkatul listu Dantec nekkatul listu ubbi nekkatul listu nangam uh-huh. ñu travailler ci léegi buñ ci travailler il faut il faut que mu ñu informatiser que pour mën a dégager génne tout ce qui est Euh, doublon. loolu ci la ñu toll. pare guñ ci nag ñoo ngi ci ak ministre de la santé di ko def pour que ñu mën a xam vraiment de façon exhaustive lan mooy nombre de patients yi waaye waaye nag jàppal ni jafe-jafe ngi ci ndax jafe-jafe bi ci nekk te di ci feeñ daay man mooy ki nga xamante ne dafa am insuffisance rénale dafa mel ne dafa am feebar bu kenn dul wax wala bu ñuy nëbb ba bëggul kenn xam ka mm-hmm. jafe-jafe boobu daf ci nekk mm-hmm. bëggul ñu xam ka bëggul ñu xam ni dafa feebar te yow mi bëgg ku la dimbali te bëgguloo ñu xam ni dafa feebar mais kooku neexul dégg sa jàngoro kay boo ko amee da nga koy siiwal ñu door la ci mën a jàppale buñ la ci jàppalee nga door a a wér mm-hmm. yooyu mooy jafe-jafe yi ci am alors bu ko defee bi ñu demee ba xool ni nombre bii jéggi na dayo suñu jëloon centre de dialyse ñu def ko ci koñ yëpp jël ñi def médecine yëpp def néphrologie vraiment doyatul il faut avoir le courage de le dire. Mhm. pour jël ñëpp en charge. léegi nag bu boobaa mooy lii tey tey nga xam ne moom laa tàmbalee woon sama wax prévention bi la ñuy góorgóorlu képp goo xamante ni yaa ngi dund. Mhm. te accès goo fii. la ma daan wax nañu fexe ba jabet bi nga xam ne ki bu dara jot kenn waaye nag comme kenn mënul te dara jot nit ñi ku yàlla natto ba nga am jabet nañu góorgóorlu bu téye la ci état boobu nga yem fa mhm. ba hypertendu bi itamit nañu góorgóorlu ba mu yem foofu bañ fa jóge ñu ñu fexe daal bu téye leen foofu bu buñ ñëw ci insuffisance rénale donc loolu mooy rôle bi nga xamante ne ak lu mu métti métti li ñu bëgg-bëgg yëpp mooy loolu te loolu jafewul ndax doo jëndi garab doo def dara li ngay lekk ak li ngay kii rek ngay xool mhm. donc loolu mooy yi nga xamante ne vraiment moom la ñu bëgg que sensibiliser nit ñi ba nga xamante ne daal daañu bàyyi xel ci seen régime alimentaire effort physique yi ñu war a def ak di jël seen tension yi tension mètre jafewul te kër gu waroon nga ko mën a am nit ñi di xool seen tension fu ñu toll. Mm-hmm. Mm-hmm. dépistage yi itamit jafewul kenn ku ne war nga mën a dem di def di dépister te bañ ragal naan su ma dépister dañ may wax ne dama feebar. Mm-hmm. ñu teel la wax ne la da nga feebar. ñu faj la nga wér. ak nga bàyyi ko ba feebar bi ñëw ngay fajoo loo xamante ne mënoo man fi ma fi ma bëggoon ñëw Moussa peut-être balaa ngay tëj mooy dialyse euh, euh, man je connais mm, personnellement. insuffisance euh, <laughs> de passer euh, mm-hmm. mes journées fële ci hôpital mm-hmm. mm-hmm. di gis sama xarit ñoom docteur ñaam leen di nuyu euh, ni bi mu nekk lu doy waar boo gëmul yàlla dëgg foofu doo fa tenir plus de deux heures beneen bi ci topp mooy xëy na ndox ni mu vitale ci dundinu doomu aadama boo demee ba ñu lay limité à un verre par jour c'est ça bien vraiment. <laughs> Euh, dafa metti feebar bu metti la man xëy na euh, fi mu ne li ma bëggoon laaj mooy est-ce que mhm. sur le plan sociétal maanaam euh, mhm. maladie ak mhm. seen i waa kër maladie ak seen ay njegeñaale yéen a ngi leen di sensibiliser par rapport ak ni nga xamante ne noonu la ñu war a dëkkee ak ñoom parce que en général insuffisant rénal yi dañuy faral di di di di di di di di gaaw a mer dañuy faral di décourager ci seen addina est-ce que seen association mu ngi yëngu ci di leen delloo ba ñu ñu xam ni dund lu yàgg quand mm-hmm. waaw euh, tàmbali woon nañu ko ndax maladi ñi nga xamante ne ñoo leen ci jiitu première première maladie ñi nga xamante ne ñoo leen di jiitu ñoom lañ daanaka ñoom ñoo gënoon di waxtaan ak ñoom. te itamit chaque fois fu ñuy waxtaan itamit ñun dañuy jël ay malade soit ay xale lañ wala ay mag lañ ñu teg leen ñu leen gis nga ñii dañuy dialysé pendant dix ans parce que nous avons connu des gens yoo xam ne dialysé nañu lu mot pendant dix sept ans. ki nga xamante day dooraa ñëw dana tiit tiitaay goo xamante ne boo ko tegalee ni kii dafay dialysé te ba mu ko gisee buñ neelawul kii dafay def insuffisance rénale la doo ko gëm. xam nga man par exemple maa ngi nii toog di wax ñu bare buñ ma gisee dañuy defee ne damay def insuffisance dama def dialyse mais parce que ñi may àndal ñuy def dialyse maa ngi ñoom ñoo yem képp. Mhm. man mi dialysé wul maa ñoo yem képp. Mhm. ndax boo dialysé rek daanako yaa ngi ñëppam kenn du xam ni yaa ngi dialysé. Mhm. fii ci réew mi bare na kilifa yoo xamante ne. des autorités politique yoo xamante ni ñoom ñëpp dañuy def dialyse wala def nañu transplantation rénale mais mënoo xalaat ni ñii dañuy def dialyse mm-hmm. te bu ñu jógee fii dañuy dem dialyse ji ñëw dellu si bari na kilifa diine yoo xamante ne mm-hmm. dañu ko daan def wala ñoo ngi koy def ba léegi te mënoo fexe ba xalaat ni kii toog nii ñëpp di nga déglu dafay dem dialyse donc loolu amul problème demoon nañ ci ba wutal leen psychologue mais comme ku xam réew mi ni muy doxeek ni mu jafee ci amul passe bu mu ñëw ambul lu mu fay dialyse nga naan kaay kaay toog ci salle di déglu un psychologue sénégalais du doxe noonu doxe noonu gëmul loolu xamul loolu man ci sama wàllu ba mi ci nekk di yëngu su amee malade boo xam ne ñëw na dañu obligé woo la di waxtaan ak yow encouragé la pour nga dem defi dialyse ndax dans un premier temps képp ku xamante ne toog nga ci plateau rek ci ci ci médecin mën la ah yow kat sa rein dafa yàqu koy jëkk jaaxal mooy luy jalis mhm. du xam lan mooy jalis ay mbokkam naan moom ko dafa am feebaru jalis mhm. yooyu loolu ngay dégg donc pour nit ñi niñ ko ñàkki xam alors bu ko defee nag loolu yëngu nañ ci ñoo ngi ciy wax ak ñoom looloo waral sensibilisation yi te yu mel ne que yii nag tey moo ñu ciy gën a dimbali. bu ko defee ñu mën a wax ak nit ñi waxante ak maladie ba ñu xam ni kii lii nit mën na ci génn ndax boo demee en France mbaa nga dem en Allemagne mbaa nga dem ailleurs jalis bi amul nekkul problème. c'est banal nekkul problème c'est banal du dara. au niveau des États-Unis dañuy avancer ci jalis péritonéal bi ba nga xam ne kenn boo ne booy jalis sa kër nga koy defee dem sa yoon. Mm-hmm. Ah, nekkul programme boo xam ne da ngay dem ci dem di tëdd di def jalis. Mm-hmm. wala na fa yomb boo xamante ne euh, dañuy dialyser facilement dem seen yoon donc nekkul problème je ne sais pas ndax mën na tax ma dem ci transplantation bi wala déet bon transplantation renal bi et traitement de suppléance la comme ni ñu ko xamee yàlla dogal na itamit moo gën a yomb euh, moo gën a yomb dialyse mm-hmm. ndax moom Euh, am na ay difficultés certes ndax boo demee ci wàllu diine comme réew bi réewu Sénégal réewu diine la da ngay gis dafay partagé wu ñi dañ naan dañuy taxaw rek ne la dafa xaram ti faa xam <laughs> ñenn ñi loolu lañ lay wax taxaw wax la am keneen isim ko wax leneen ndax man xatala mu'minan fekk annama xatala naasa jami'an parce que bu fekkee gis naa kii kat réewam dafa yàqu hmm. te mën na am kii bu ñu jëlee réew kii def ko fii moom xëy na mën na dund bu fekkente ne xaram na itamit man mi gëm sama diina taxaw ne xaram na moom mii nga xamante ne moom wóor na que bu ñu jëlee reewu kii def ko jëmam dana dund moom mu dund moo koy gënal. Mm-hmm. moom xoolatul ma ne yàlla yàlla ndax yàlla moo fi nekk mooy moom mooy rey. Mm-hmm. te taxul ñu al alqaatil. Mm-hmm. taxul ñu tuddee alqaatil. donc moom am na yërmandeem itamit boo xamante ne bu ci d'accordul bu nanguwul itamit boo ko fa dugalee da koy rejeté rek. te loola. di transplantation rénal dem nañu ba ci biir it ñu xam ni vraiment traitement la boo xamante ne vraiment moo ci tane moo tane. Mm-hmm. waaye nag tamit tane bi mu tane nag dafa laaj moom tamit ay mesures yu bari. yoo xamante ni tamit yombul. Mm-hmm. yombul ñun xam nañu fii sénégalais ñoo xamante ne dañu leen transplanté bon ñoom tamit ñuy nëbbu comme ni ma lay waxee woon sànq doo leen gis doo leen dégg. Mm-hmm. alors que jafe-jafe bi ci am mooy seen garab. seen i garab nga dul mën a jis ndax cher na cheraay boo xamante ne pharmacie ñi koy utiliser bare wu ñu bare waaye bu leen jaral ñu koy commandé muy ñëw donc loolu jafeel jafe la ci loolu jafe-jafe la ci mhm. mhm. te ni ñu ci réew mi ah ci li ma xam weesoogul vingt dangam am na. jaajëf Doudou Ahmed sa ñu ngi lay sant di la gërëm. ñu wane ni donc yow yaay président a mhm. amoon nañu mbégte loolu dalal la ci journée mondial bi nga mhm. xamante mhm. ñu ngi ci wax lépp lu jëm ci wàllu. xeex li nga xamante ni mooy feebar bi dal. wàllu roño. kon ñu sant la gërëm. jërëjëf waaw ñun ñoo leen di gërëm. ndax occasion bi vraiment jox ñi yéen ñu ko ba tey te. Eh, damay faral di wax naan yooxu leen nga toog naan wuyaa yooyu moo gën a gaaw mm-hmm. mais bu loo yooxu yooxu itamit dafa am fu sa baat yem mm-hmm. li ma ci wa li ma li may faral di nettali rek mooy yonent bi ali euh, ma yonent yàlla ibrahim mm-hmm. ba ko yàlla waxee ni ko wooteel ca kaaba ga xelam dafa daw mu ni man su ma woowee kan moom may dégg man ma nekk fi man kese man maa woote su woowee kan moo may dégg mais yàlla ni ko yow xam nga lan mooy sa problème yow yow wooteel yow sa responsable mu ngi am ci woote mais kay dégg koo ko mën donc ñun ACHIM suñuy wootee am na fu suñu làmmiñ yem mm-hmm. su yàlla suturaale leen ngeen indi ñu fii nag waxal ñu mais donc dafay gën a yaatu dafay gën a donc dañu leen di gërëm ci su ko ñeneen ñi defee tamit mu gën a yaatu ñu di ci wax daay man dafay tax nit ñi gën a bàyyi xel ci loolu bon ñu ngi leen di sant di leen gërëm mm-hmm. rawatina yow Moussa xam nga ci dara ndax ci nga sant de mm-hmm. jalis bi ñu def def nga ci reportage yooyu yëpp sant la gërëm la daal mm-hmm. ñuy gërëm ñi fi nekk ci plateau bi yëpp di leen ñaanal buur yàlla tabaraka wa taala mu jàppale leen ba seen dund jëriñ comme nii mu commencé di jëriñ daal mm-hmm. jërëjëf jazakallahu xeyran ñu gërëm ko bu baax moom Doudou Ahmed Sarr gërëm bu baax itam docteur kër gi di Moussa Moussa Sène dañuy dem ànd ak waa régie marqué une petite pause avant de revenir pour la suite ñu jéggalu ñu jéggalu li xew ci suuf moom nañu koy bàyyi ci suuf rek du dëgg parce que man ñaar ñi dama mënatul dara ci seen i. ce qui se passe off the record. rest of the yëpp ay xeetu problème fait de société rek la ñuy wax. dinañ ko traité ci kanam bu ñu. dinañ ko traité ak ki nga xam ne tey ay bongo ay tama la fi indi tey. mais tey dafa am invité waaw tey non temps yi nag moom dama dama dama tàmbalee ay invité. waaw ay invité temps yi. pëcc laay ak temps yi moom ma xaw a yokk foog ma xaw a yokk tuuti grade temps yi quoi. yëkkati mbagg yi temps yi moom pëcc laay noonu. pëcc laay. ah pëcc pëcc laay la. pëcc mais tey indi naa garas bongo. Mm. xam naa ci karam léegi. incha allah dinañ ko daal ci plateau bi. léegi yow loo nuyu MLK di la nuyu Seynabou Ndiaye di nuyu euh, Ibrahima Balde Pël bi ak sama xarit euh, Nafi. Mm-hmm. di ko nuyu bu baax di nuyu mbokk ñi sant ci euh, matinal bi di leen bu baax tey indi naa diggante patron ak femme de ménage ci biir kër gi. mën mm-hmm. na daan doole yi. Mm-hmm. tey loolu la ñu fas yéene waxtaanee comme fait de société. incha allah incha ki xam-xamam màcc ci ay faits de société toog nga ne loolu ngay waxtaane <laughs> ay dem kon nañ ko bokk rek. ci actualité bi. ñu dem ci actualité bi na mo mhm. euh, di dalal Jibi Jaxate Jibi Jaxate nag kenn du ko présenté mais moom xamee naa ko IAM mais ne bokk école nee na ma tamit mu ngi feneen ak feneen jibi ñu ngi lay nuyu di lay ziar te di jégalu aussi tam ci dérangement parce que Ajara nee na. yëkkati sociologie matin. sociologie fajar yi. waaw fajar yi dafa metti <laughs> bi ma ko njëkkee woo mu ne ma mu ngi toll ci pont ànd <laughs> maa ngi naan ko waa baax na l'essentiel na nga ñëw rek nest la pas Mamadou Lamine. ñu ngi lay. la plupart des intellectuels ils ah. travaillent la nuit autant donc xëy na peut-être loolu. loolu c'est un social ou. <laughs> mais merci maa ngi leen di maa di nuyu di di leen sant aussi di leen remercier ci invitation bi kontaan naa ci trop. Mhm. Euh, émission la bu may suivre euh, très souvent. merci euh, di kontaan aussi ci participer bi bu baax a baax. oui c'est vrai je suis le directeur de l'école doctorale. Mhm. et de la recherche de l'Institut africain de management l'IAM. Mhm. Je suis maître de conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis membre du CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. voilà c'est. bàyyiwoo dara aussi. je <laughs> ñu seetlu ni fan yi ñu génn am na benn xale bu ñu reyoon foofee sa Malika ñu gis ni tamit euh, amoon na ay violence électorale euh, foofee ca Tamba est-ce que jotul ñu taxaw xool li nga xamante ne moo di benn bilan ci wàllum gestion de famille est-ce que du échec ci li nga xamante ne moo di cercle d'éducation yi maanaam famille bi la walla école bi la walla ñan jërëjëf ci laaj bi en fait lu ñu mën a wax moom mooy sori baatu sori baatu sori moom mooy expliquer des fois situation yu compliquer yi ñuy dund ci ci suñu penc yi alors sori bi njëkk mooy sori bi nit ki sori kër gi parce que boo ko dee xool kër moo nekkoon fi nga xam ne fa la ñuy waajale nit ki ba bu paree mhm. dafay am comportement bu muy am boo xam ne comportement boobu daf koy jombloo yenn yi mais du ko ko rusloo mhm. wolof day def différence entre ak jomb rus mooy du ma def euh, lu ñaaw parce que nit ñi ñi may xool. Mm-hmm. jomb mooy ñu xool maa ngi bañ ma xool lu ñaaw duma ko def. Mm-hmm. parce que waajal nañ ma ba nga xam ne man maay tere sama bopp lenn li. Mm-hmm. loolu nag ci biir kër gi lañ ko doon defee. léegi ci biir boo fekkee ni da nga jàngat l'enfant noir bu Camara Laye da nga wax ne bi muy nekk xale we waajuram yi dañ ko doon wax heure midi ba tisbaar bul nekk ci mbedd bi. Euh, timis ba gee bul nekk ci mbedd bi dañ ko doon tiital sax ni ko bu la fekkee ci mbedd bi jinne sadd nga xam ne lu mu mënoon ci jàpp da koy bàyyi ndaw ñëw ci kër gi mu ni ndekete bi mu demee ba màgg la comprendre ni heure yooyu heure añ la ak heure reer mm-hmm. nee na añ beeg reer bi dafa am jikko bu ñu doon def ci moom ci biir kër gi mm-hmm. d'abord li ñu doon jëkka toppatoo mooy na muy toogee mm-hmm. donc bu ñëwee toog ci ndab li ñu teg ko ci suuf na toog toog bu jub toog bu toog bu sell ginnaaw ba mu toogee noonu ñu ne ko ndab li na nga ko téye ak sa loxo càmmoñ donc ndab li warul yëngatu ndab li moom mooy société bi ñu bokk penc bi ku nekk da ko war a téye ba société bi du yëngatu donc mooy ndab li sa kanam rek nga yem donc amoo droit lekk ci sa kanamu jàmbur. Mm-hmm. damaa animé conférence université ci thème lu tax dawalkatu Sénégal du ñu respecté code de la mën man dañoo lekkatul ci ndab parce que ki nga xam ne dañ ko ne ci sa kanam rek ngay yem. Mm-hmm. di lekk mu màggee noonu bu màggee di dawal mën nañu am yaakaar ni kanamam rek lay yem. Mm-hmm. léegi ndawal nga ci diggu ndab li gone yi waruñu koo laal mag ñi ñoo am droit laal ko mais mag ñi am nañu xel bu toll ni bu ñu leen joxee droit boobu dinañu dagg jël xale bu nekk teg ko ci kanamam. ñam ndab ndawal jooju moom mooy le bien commun mooy li ñu bokk le bien publique du kenn amul droit jël ko teg ko ci kanamam lépp. ci digg ba lañ koy bàyyi te ku ci nekk la nga ca war a am ñu dagg tegal la ci sa kanam. ñu ne ko ñam li waroo koo tuur parce que yow yàlla baaxee na la nga jot ci ñam jooju am na koo xam ne jot ci. donc war nga wormaal ñam bi. waroo lekk di teg sa loxo ci suuf waroo lekk di wax waroo lekk di xool ñeneen ñeneen ci. Mm-hmm. donc. noonu ñu doon waajalee ndaw bi ci biir kër gi. Mhm. loolu dafa xaw a tawat léegi moo tax sëñ mu Ka di wax ci xarnu bi ni kër yi léegi dañoo wéet. Mhm. voilà wéetaayu kër gi mooy ña fa waroon nekk di gunge ndaw yi mhm. léegi amatuñu jot boobu. ku ci ne da ngay xëy daw bu boobaa kan mooy yar ndaw bi. télévision moo ko yar internet moom moo ko yar. Euh, téléphone portable moo ko yar te ñooñu ñu ñu yar. dóor nga sa loxo ci ëkk comme ni ko sëñ euh, su ni ko Oustaz Alioune Sall di waxee donc première sori mooy sori kër gi deuxième sori moom mooy sori ay royuwaay loolu aussi dañ koy xaw a fàtte pinc day am royuwaay maanaam xale yi xool ni kii suñu royuwaay dama dafa am ay xale yu ma mës invité seen école ay élèves école primaire benn xale buy def ce ni ma professeur dafa am lu ma lay laaj ma ne ko la ngay laaj lan la mu ni suñu maître volontaire la daf ñuy wax ni dee leen jub di leen wax dëgg bu leen jël alalu jàmbur de leen def lu baax te ne loolu la ñuy wax mu ni mais dama yaakaar daf ñuy nax parce que moom li mu gis mooy ñiy def contraire loolu leen maître bi di wax rek ñoom ñoo tekki xam nga élève buy def CE2 mm-hmm. <laughs> wax ne <laughs> maître bi li may jàngal di wax ne leen jub dee leen yiw dee leen wax dëgg bu leen laal alal jàmbur mm-hmm. mu ni bi daf ñuy nax mm-hmm. parce que dañu seetlu ni ñiy def contraire loolu ñoom ñoo ñi nga xam ne ñoo tekki mu ni maître bi sax xëy na yooyu mu gëm moo tax amul dara. nee na ngoon bu jot ma ngay daw ci ginnaaw car rapide pour ñibbi. c' est grave loolu élève bu am bu élève buy def CE2 à peu près c' est 11 ans 12 ans. c' est ban ban modèle ban ban royuwaay. la ñuy la ñuy la ñuy jox suñu xale yi. parce que tamit yar dafa laaj royuwaay dafa laaj model léegi boo ko dee xool dafa mel ni dañu jël léegi ay contre modèle. moom mooy li xale bi wax quoi ñi nga xam ni dañuy jël yëfu jàmbur ñi nga xam ni duñu wax dëgg ñi nga xam ni duñu wax lu baax finalement dañuy jël dem ba jël leen def leen kooku dañu sori ay royuwaay yu baax. beneen sori bi ñu sori mooy ay jikko. dañuy wax réew mi crise des valeur hmm. ñëpp a koy wax. mais crise des valeurs boobu dafa bëri fu muy feeñ. dafa feeñ d'abord ci kàddu gi. Hmm. en fait boo xoolee léegi ni ñuy waxee dafa xaw doy waar ah. suñ hmm. suñu wax léegi dafa dafa doy waar amul teggin amul kersa amul yiw amul yar amul respect. wax joo xam ni nu mu gën a ñaawee rek sax dafa mel ni ci lañ la gën a. ràññeeku ci lañ la amee buzz. ci ngay gën a amee buzz. donc wax ji. Euh, dafa nekk joo xam ni lu rafet alors que mën mën nga wax sa soxla ci ci mer sax ah, ci mere nit mën nga ko wax say soxla sans pour autant que nga nga nga ko wax ko wax bu ñaaw ak wax ju mhm. ànd ak fitna mhm. donc ci wax ji mhm. dafa nekk aussi ci suñuy jëf xam sëñ bi yenn saa yi nga gis koo xam ni li muy dund moom rek moo ko xam lu metti la mhm. dañ koo ber dañ koo beddi kenn du ko boole parce que dafa feebar yéen a ngi doon wax léegi ci maladie mhm. yenn saa yi nga gis suñu penc yi am ku feebar benn façon feebar boo xam ni dañ lay beddi mhm. am na ci jigéen ñoo xam ni dañuy am fistule euh, jigéen ñi nga xam dañ leen di xarafal yenn saa yi nga gis yi ñoo xam ni xaraf bi day indi infection ñu am fistule obstétricale bu boobaa pour ñu mën a téye seen yenn affaires yi dafay jafe. Mhm. dafay am xet buy nekk ci moom. Mhm. am na ci dëkk yoo xam ne dañuy jàpp ni kii dafa jaaloo. Mhm. donc dañ koo teg mbugal ay muy dund lu métti. loo xam ni du ko mën a wax kenn moom rek moom moo koy dund dañ koy beddi teg ko nële. yenn saa nit ñàkk ñu beddi la. ñàkk suñu société bi. dafa nekk société boo xam ne dañu jël alal di ko jaamu. donc boo demee ba nga xam ne yoroo yenn yi. lu metti ngay dund man damay wax ci tubaab ni dans la société sénégalaise actuelle ceux qui ont sont ceux qui sompa pas ne sont pas ceux qui donnent ordonnent et ceux à on donne se subordonne xaalis rek mu mel ni benn yonent yàlla bu bees bu fi ñëw mu yonent yàlla CFA boo amul beddi nañ la donc jikko yi nga xam ne moom moo fi nekkoon nga xam ni dañuy naw nit ndax comportement bi mu am ndax xalaat yi muy génnee ndax wax bu rafet bu muy génne léegi dafa mel ni dañuy naw nit ci melal nu la neex mais yoral rek. Mm-hmm. Mm-hmm. donc loolu yëpp ay façon sori la yu ñu sori yu fi nekkoon. daal di xëcc yoo xam ne. jegele ko yoo xam ni musiba la mu indil ñu situation yu xaw a doy waar. Mm-hmm. donc mooy fitna bi nga gis ay ñaawteef yi nga xam ne mooy développé wu ci penc bi. je pense que euh, Djiby euh, def nga tuuru euh, li nga xam ne moom mooy question bi et c'est toujours un plaisir boo xam ne nit ki daf koy son parce que en fait borom xam-xam ne bëri nañu la en fait Djiby Diakhaté c'est un sociologue sénégalais. Mm-hmm. li muy wax c'est des réalités sénégalaises. li ñuy dund. c'est ça c'est un sociologue sénégalais et je pense que sociologie mhm. euh, booy def sociologie sa société ngay jógee li mu lay wax c'est des références yoo xam ne euh, ci daara lay jógee mhm. ci looy gis chaque jour parce que sous l'explication qu'il a donnée par rapport ak euh, non ñàkk respecter code de la route mhm. mais c'est une explication boo xam ne nii franchement c'est c'est c'est très clair quoi effectivement le comportement du Sénégal man li ma la bëgg laaj muy jëm ci Euh, li nga xam ne mooy nees def ba lii yëpp soppeeku. Mhm. ak kan mooy yor responsabilité bi parent bi la état la kan mooy responsabilité école bi. Mhm. kan mooy te responsabilité parce que il faut que ça s'arrête en mhm. ndax dafa war a doon euh, arrêt bu immédiat changer de façon radicale wala naka lañ mën a def ba loolu soppeeku. am na ci ñu mën a liggéey. en fait d'abord kër gi il faut ñu xoolaat ko dama mës a waxtaan ak benn ministre euh, ci journée continue. ma ne ko est xayma nañ ko. mu ne ma xayma nañ ko te gis nañ ne parents yi nga xam dañ doon wàcc midi di jël oto di ñëwaat 15 heures nga jëlaat oto dem liggéeyuwaat 17 heures nga wàccaat gis nañ ni ci biirum koom am na ci loo xam ni économie lay doon pour ñoom. Mm. ma ne bon ok donc xayma ngeen ko ci koom mais est-ce que xayma ngeen ko. ci jikko ci yàq-yàq yi mu indi ci kër gi. parce que euh, c'est ça en fait bu njëkk da nga daan wàcc midi dem gisaat sa njaboot. Mm-hmm. xale yi ñëw euh, ngeen añandoo moom mooy añ bi ma nga fe am na ñoo xam ni dañ toog une semaine dañu gisante ak seen njaboot. Mhm. parce que yow waxtu ba ngay xëy di liggéey xale yi xëy na jógaguñu. Mhm. waxtu ba ngay wàcc di ñëw dina fekk ñoom reer nañu ba tëdd nelaw. Mhm. donc finalement yaa ngi ci biir kër gi mais nekkoo ci biir kër gi. parce que sa njaboot duñ la gis donc il faut ñu xoolaat kër gi. moom mooy taxawaay bu njëkk kër moom mooy unité sociale de base boo xam ne bu amee problème rek société bi yëpp dafay yëngatu mmh. donc il faut ñu delluwaat ci kër gi sëñ Moussa Ka daf koy wax ni kër gi léegi dafa wéet mmh. wéetaayu kër mooy ña fa waroon nekk di gunge gone yi léegi dañu déserté dañu dem seen yoon mmh. donc loolu dina jël du temps mais dafa laaj liggéey am na ministère bi nga xam ne moom la ñu dénk kër gi mooy ministère la famille euh, am na ci ñoo xam ne dañu doon intervenir ci kër gi léegi dañ ci dindi seen loxo mooy maam maam da daan intervenir ci kër moo moom moomoon cax moom moomoon lépp ku xam ku ne xam na ni cax ak lépp yar la ci yar la bo cax day defar xel lépp day defar jikko te na doon dimbali sax maam yi ñu bañ a naax c'est ça en fait donc maam dafa amul leen ber absolument léegi bu loolu maam gis nañ ko ci bàjjan dafa amoon rôle bu xam nga am na loo nga xam ni papa mënu ko yaay mënu ko bàjjan moo koy dox. ci wàllu doom. voilà c'est ça nijaay dafa amoon rôle bu mu doon joué. am na li nga xam ne ñoom ñëpp mënuñu ko mm-hmm. nijaay moom mooy jouer rôle boobu mm-hmm. léegi boo ko dee xool fonction yooyu dafa mel ni doxatul ci parce que appartement yi moo xew en famille amatul absolument mooy famille nucléaire yi loolu ñu war a liggéeyaat gis nga tubaab yi nga xam ne ñoom ñoo suivre loolu mm-hmm. ñoom dañu dem actuellement ba dugg ci guuta tubaab yi dañu dem ba yenn valeurs yi dafa commencé dafa ñoom ñoo ko waxal seen bopp Paul Valéry moo wax ni nous autres civilisation parce que seen kër yi alors ñoo xam ni ñun ci suñu code de ak ñoom seen code de loi dañu bi dañu bindoon ni sëy mooy euh, denc boo xam ni diggante góor ak jigéen la léegi ñu dem ba dindi loolu daal ni sëy denc la boo xam ni diggante ñaari nit la. Mm. donc <laughs> nekkatul góor ak jigéen diggante ñaari nit la. Mm-hmm. xam nga yooyu yàqu-yàqu te yu doy waar donc du ñu war a liggéey ci kër mm-hmm. bi ñu des moom mooy dañu war a liggéey ci école bi c'est vrai raison euh, école bi ñu am tubaab bi moo ko dagg solol ñu ko. Mm-hmm. en nekkul école boo xam ne. suñu suñu suñu école bopp la. Euh, dama koy wax ah boo demee ci suñu école bi xale yi xam nañu Victor Hugo xam na ñu Karl Marx xam na nañu Nietzsche euh, xam nañu Martin Heidegger xam nañu euh, Elton Mayo xam nañu Douglas MacGregor mais boo leen laajee Kocc Barma ñu am ay problème boo leen laajee Ndamal Gossas ñu am ay problème ko boo leen laajee Seydi Hadji Malick si ñu am ay problème mm-hmm. boo leen laajee a Amadou Bamba ñu am ay problème xamuñu ko sëñ Moussa Kassé ñooñu jàngale ay jàngale yu am solo yoo xam ne waxuma ñu tëju ci suñu bopp mais bay sa weewu kanam. Mhm. su Joseph bo dafa ne boo fanaanee ci basamu jàmbur jàppal ni ci suuf nga fanaan. Mhm. <laughs> parce que kooku même boo ci fanaanee ah. Mhm. jàppal ni ci suuf nga fanaan parce que jamono ju ko neex bu jamono ko bu ko neexee ñëw jël jël jël. Euh, jël basangam nga tumranke moo tax Cheikh Ahmed Tidiane si al Maktoum. nee na tumranke bi njëkk mi ngi tàmbalee ci bi nga xeex xeebee sa bopp. donc école bi dafa nekk loo xam ne dañ ko war a tëggaat. tëggaat ko dëgg dëgg dëgg ba mu jubóole ñoog ñun suñu bopp. Euh, Senghor dafay wax ni euh, Isabelle ak Soukeyna dañoo war a ànd mais balaa ngay wax Isabelle nga tàmbalee Soukeyna. balaa ngay wax Taylor de Chardin nga wax Tokor Wali donc da ngay tàmbalee ci sa bopp loolu. mais école bi dafa nekk loo xam ne doy waar bi ci des nag mooy média mais mais franchement contenu yi. yenn saa yi nga gis ci euh, c'est bien man damay wax ne bu ñu waxee film. à un certain moment dañ doon jële film yoo xam ne day jóge bitim réew mhm. télénovela yeeg ay affaire yooyu ñu koy teg suñu télé yi ñuy seetaan bon ñu ni léegi nañu defar suñu film bopp nag parce que film bi ngay seetaan tamit daf lay waat ci beneen société mhm. ak yeneen réalité mhm. mais bu fekkee ni film boo xam ne ko toggal sa bopp dafay nekk loo xam ne da nga ciy li nga bëgg a génne maanaam sa xar kanam boobu ak ni nga bëgg a yaree say mais ñun film yi ñuy génne dafa toppandoo yële quoi en fait donc finalement pour mu nekk loo xam ni production dafa important ñu produire loo xam ne daf ñuy méngaleeg suñu bopp dafa am rapport ak suñu suñu àdduna ñun ni ñu gisee suñu àdduna mhm. tey jii boo demee ci dëkk yi nga xam ne euh, mooy pays asiatique yi ay Chine ay Singapour ay Corée développement bi ñu am yëpp boo leen laajee dañu ni ñun dañu dellu ci li ñu moom mhm. Mhm. dañu tàmbalee ci loolu daal di soog a ubbeeku euh, dem jëli ci tubaab yi lu baax lu ñu am ku respecté rendez-vous dañ naan tubaab nga. Mhm. ci suñu dëkk bi. Euh, ku def liggéeyam normalement. Mhm. ñu ni tubaab la ku set. ñu ni tubaab ñu ni tubaab la ku rangé ordonné. ñu ni tubaab ñu ni tubaab la il y a problème donc ñu. bu ñu bu ñu ci mbirum tubaab la yooyu sax dañu xool ni jamono ji man li ma gën a inquiété te je crois que un jour ñu ngi ci doon waxtaan euh, off the record ci société bi nga xamante ne dañu dem ba léegi papa yeeg yaay yi seen i doom déggatuñu olof. xale yi làqatuñ olof école ba ñuy jàngee français lañ leen di imposer ci seen i biiri kër seen ay parents français lañ leen di imposer moi j'ai un ami bu nga xamante ne euh, Sénégal la juddoo yaroo fi màggee fi mais ay doomam mënuñu la waxal benn moowu olof par yenn saa sax bu ñu déggee yenn moo yi mhm. dañuy dem ci seen papa naan kaan qu'est-ce que ça signifie parce que mhm. xamuñu ko dunduñu olof bi nga xamante ne ni que moom la ñu war a làkk est-ce que loolu itam euh, du tax euh, li nga xam ne moom moo di retour ci suñu ay euh, source retour ci réalité yi nga xamante ne moom la ñu am ñun mu xaw a biaisé parce que du du du mën a continuer bu fekkente ne ñun parent parents 2.0 yi ñu ngi pousse suñu ay doom pour ñu làkk anglais ak français beddi leen ci suñu ay làkk yi nga xam ne moom la ñu am mm-hmm. école bilingue yi di gën a yokk encore mm-hmm. il y école énormément d'écoles bilingues au Sénégal dafa am ñaari mbir li nga wax solo bu njëkk bi moom mooy boroom xam-xam yi yëngatu ci linguistique yépp nee nañu pour nga jàng benn làkk mu yomb ci yow faw nga mën sa làkk bi nga nàmm ko nàmm ba pare parce que intelligence linguistique danga koy am ba pare dafay nekk ci yow donc mhm. làkk bi nga nàmp da koy mokkal léegi daf lay gën a yombal nga jàng beneen làkk parce que dëgër nga ba pare xam nga boo jàngee wolof nga xam construction yi grammaire bi vocabulaire et cetera booy jàng beneen làkk dafay gën a yomb mais bu fekkee yow mënoo sa làkk ba pare xamoo dara bëgg a beneen làkk dafay xaw a jafe bi ci topp moom mooy borom xam-xam yi aussi wane nañu ne booy jàng xam-xam jàng ko ci làkk bi nga gën a mokkal bi nga nàmp dafay gën a yomb. par exemple tey jii xale yi boo leen di jàngal mathématique. d'abord pour ñu comprendre mathématique bi il faut ñu comprendre français bi ba pare. Mm-hmm. soo comprendre mathématique bu fekkee xale yi français la moom xam nga moom français la làkk donc pour mu jàng mathématique dafay gën a yomb ci moom. Mm-hmm. donc ñun dañuy perte temps ci ba pare soog a mën mathématique ba nga xam ne moom la ñuy jàngal alors que li doon gën a gàtt mooy ñu def ko ci suñu ay langue maternelle mm. loolu tamit responsabilité état bi la mu promouvoir les langues maternelles bi ci mujj moom mooy colonisation française mm-hmm. xam nga colonisation française ak colonisation anglaise bokkul colonisation anglaise dañu amoon benn modèle d'administration indirecte maanaam anglais moom day ñëw jël koom-koom ñibbi mm-hmm. moom nekku fa di saafonteeg nit ñi indi ay kii moom day koom bi moo ko intéressé woon day ñëw ñibbi français bi par moom day ñëw jël koom-koom mais dafa jàpp ni li gën a yomb pour nga jël koom-koomu nit ki mooy nga changer xelam ba pare. Mhm. maanaam changer xel bi ba mu am un complexe d'infériorité. Mhm. jàpp ni yow tubaab bi yaa ko gën. emancipate mhm. yourselves from mental slavery none body but ourselves can free our mind. Bob Marley moom mooy way loolu. nee esclavage bi gën a garaaw mooy esclavage mental. maanaam yow bi nga gëmee ni kii moom moo la gën. tubaab bi loolu lay doxee noonu mu doon doxee démb ak bërki démb ba léegi ci loolu la ne moom sax c'est-à-dire ba léegi bëri na ci ñi nga xam ne intellectuel la ñuy tuddee seen bopp complexe la ñuy développé mm-hmm. par rapport à l'homme la mm-hmm. bëri na fi ñoo xam ni dañ naan euh, cadre la ñu njiit la ñu mm-hmm. boo jëlee vacance boo ne dama demoon Côte d'Azur donc dama demoon Honolulu da nga koy yëkkati euh, boo solee loo xam ni euh, mi ngi jógee Italie da nga koy wane <laughs> ah. alors que boo demee Ngaay Mexe fekk ju fay jaay loo xam ne li donc dama bëgg a wax rek ne complexe boobu euh, développé nañ ko ba nga xam ne euh, wolof bi sax buñ ko wax yenn saa sama wolof leerul wala ma boole ci ay dégguma wolof et c'est la plupart du temps dégguma wolof accent man euh, professeur sama inquiétude dafa dafa dafa romb loolu yëpp parce que dama daan boo boo boo taxawee <laughs> nga jël recul ngay observer la société ni nga xamante ni noonu lay doxee man les deux mais pulaar laa gën a dégg nag boo jëlee recul nga taxaw nga observer société bi ni muy doxee nga fàttaliku bi nga nekkee xale dañ na daan wax wala nga daan dégg ci sociologue yi nekk nit bu deful euh, charte yi dëppoo ak société c'est un dérivé ñu doon gis benn dérivé ñaari dérivé mais bu demee ba booy euh, jur yi nekk ay dérivé ñu ñi nga xamante ni ñoo nekk ci société bi nekk ay dérivé est-ce qu'il ne faudrait pas chercher la racine du mal ailleurs parce que euh, bëri na ay émission yuy delloo si nit ñi par rapport à leur valeur bëri na ay sociologue yu nga xamante ni ñu ngi bay seen waar par rapport au retour euh, euh, euh, ci ci li nga xamante ni moom la ñu baaxoo mais ba tey dara changé wul est-ce que jàpp nga ni un jour viendra ñun ni nga xamante ni xëy na ñun ñoo nekk ci biir société ñu répondre au chartes de la société d'antan dina métti parce que bu ñu fàtte ni dañu nekk aussi ci mondialisation mm-hmm. c'est très compliqué mm-hmm. c'est-à-dire que lépp loo liggéey yow ci sa kër après xale bi mënoo koo tëj ci kër gi 24 heures sur 24 dafay dem jàngi dafay am lu mu fay gis wax naa léegi école bi. Mm-hmm. donc yow mën nga koo gëmloo ni ko lii moom mooy li jaadu bu demee ci école bi leneen lay gis. Mm-hmm. wax naa la ko léegi leneen lañ koy jàngal euh, mën nga koo wax ni ko lii moom moo baax. mu seetaan benn film seetaan benn théâtre gis ci leneen. Mm-hmm. donc loolu laa lay wax ni il faut mu am benn mouvement d'ensemble loolu nag li koy réglé mooy projet de société cest à que euh, il faudrait que suñu homme politique yi. di am projet de société ni dëkk bi ni ma bëggee koom-koom bi doxee nii noonu laa bëggee ni société bi dem nii ñun dañu dafa mel ni dañuy jàpp suñu yëpp rek teg ko ci koom-koom mm. c'est-à-dire que koom-koom bi nañu fexe ba mu buñ naan euh, croissance taux de croissance mais taux de croissance boo ko mesurer ci économie te boole woo ci nag jikko yi am na problème mm. nit ki mën nga ko jox xaalis bu bëri mu am ko mais bu fekkee ni jikko yu rafet ne ko fa musiba la mm. damay wax ni dafa am ñoo xam ne bu ñu dajee ci penc am problème ku njëkk ki fa nekk mooy borom xam-xam bu maanduwul day yàq penc ki ci topp mooy borom alal bu kàccoor day yàq penc maanaam alal boo ko amee te àndul ak jikko yu rafet problème lay am. Mm-hmm. Mm-hmm. ki ci topp mooy ndaw bu ñàkk kilifa. Mm-hmm. te loolu daf fi bëri. ki mooy mag bu tàyyi yenn saa nga gis ay dérapage yoo xam ne nekkul xale yi ah. mag ñi tamit dañ ci am responsabilité yenn saa yi nga gis demal ci circulation bi. danga nga ci gis koo xam ne day def lu ñaaw nga wax ko mën la man sama permis moo la mag. loolu ku nekk dégg na ko. donc yow nga war a joxe le bon exemple fekkee donc dama bëgg wax ne. dafa laaj benn loo xam ni ku ci nekk. la nga war a joué da nga ko war a joué. sa rôle donc ci média yi ci euh, ci euh, ci école bi ci kër gi euh, ci ñi ñuy defee politique et cetera. mais bu fekkee ni yow yar nga say doom ci ay jikko yu rafet ci ni ñu war a taxawee et xale bi ubbi télé seetaan assemblée nationale gis député yu xeex. Mhm. di saagante. alors que ñooñu. dañu jàpp ne ñun ci ñun. Mhm. ci quinze millions de sénégalais. mooy cent soixante ah. ans yu ñu tànn la demal ngeen toogal ñu foofu représenté nga ubbi télé bi fekk leen ñuy saagante di xeex mhm. il y problème mhm. Mhm. il y vrai malaise cest dire que moo tax kon ñu ku ci ne na war nga mesurer sa responsabilité ci booy wax parce que gone yi ñu ngi lay dem ci booy jëf parce que xale yi ñu ngi lay xool léegi nag nga jëm ci réseau réseaux sociaux yi tey jii beneen affaire la foofu moom célibataire beneen affaire la sa à dire que amul kenn ku ñu bàyyi kilifa boo xam ne kilifa bu baax aussi dañu dem ba bëgg a wane ni léegi ñëpp ñoo bon. Mhm. c'est ça en fait. et ça c'est excessivement grave. Mhm. dans une société mënuñu dem ba ne ku baax amatu fi. Mhm. nii mais loolu moom moo fi am dañuy sëriñ bu sell bu yiw. et cetera koy yàq lu kenn xamul. finalement yow bu fekkee ne euh, moo tax il faut ñu. Euh, éduqué waat bu baax penc bi ci ñu am mhm. yi bañ koo laal mhm. yenn kii ñu ni non lii jaaduwul c'est esprit parce que dafa am ñoo xam ne yàq moom moo leen tax a jóg mhm. éducation aux médias et éducation par les médias absolument d'accord jërëjëf Nabou foofu la ñuy tëjee lii di actualité Modou la waaw lii la ñuy tëjee mais dafa am benn borom xam-xam bu ma ne woon euh, ñoom tubaab bi raw nañ seen maam mais ñun nit ñi ñuul yi ba léegi si suñuy maam donc dëkk bi toj na torop xam naa ni loolu dinañ ci <laughs> indi li mu wax sànq dafa am solo ci euh, mbirum parents yi ci dëkku tubaab bi ndax mm-hmm. France fan yi lañu génn semaine passée coow li fa amoon mooy euh, élèves yi bu ñu leen joxee ay circulaire à faire signe ci parent yi dañuy bind le la mère signature mm-hmm. ñu gis ni à chaque fois yenn ci ay famille bu ñu yóbboo bu ñu defee le dina am ku la mère dañ koy baare signer ci suuf coow li nekkoon nag kenn ku jub ne dañu war a yóbbu ci assemblée nationale pour ñu def parent un parent deux parce que yenn saa yi ñaari jigéen <laughs> ñooy jur benn xale. Ah. ñaari góor ñooy jur benn xale. Ah. parent un parent deux daal xam naa ne euh, semaine bële passé juróon na coow lu rëy rëy ah. ci <laughs> ndax am na réew yoo xam ne ñu ngi koy def euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ñaari góor wala ñaari jigéen yenn saay dañuy dem ci école ba pour wax ni sama doom bu ngeen koy joxati da ngeen di euh, di def ñaari pap wala ñaari yaay la nga xam ne moom mujjee tukkee ci mbir ya mooy <laughs> dañ leen ne léegi faw ñaari góor yi wala kenn ci ñaari jigéen yi kenn nangu ni maay papa kenn nangu ni maay yaay kon mm. bu fekkee ci ñooñu la ñuy bàyyi suñu doom yi ñu ciy roy dina xaw a compliqué. assemblée nationale ba daal loolu looloo fa xewoon semaine yële ñu génn muy lu lu doy waar quand même ci euh, ay mbir ñu dem seeti na fi. voilà Seynabou mm-hmm. on va parler de euh, culture ndax euh, du am transition sax ndax li ñu daan li ñuy waxtaanee nii je pense que ci aada ak cosaan la bokk ndax la culture et tout ce qui s'acquiert dans la vie ah lu ñu ñëw peut-être ci peinture maa ngi ko doon wax sànq aujourd'hui mhm. on va vous euh, faire euh, découvrir benn artiste peintre bu nga xamante ni il peint d'une manière vraiment très extraordinaire sans plus tarder dañu dem découvrir rendoo ko ensemble euh, ñëwaat ci plateau bi pour les commentaires et discussions voilà ñoo ko gisandoo mu nekk nag euh, euh, un artiste extraordinaire muy peindre d'une manière vraiment extraordinaire lii moom c'est inédit parce que je pense que beaucoup de personnes dinañuy faral di découvrir les artistes peintres pour rappel lii c'est de l'art plastique on a on a l'habitude de voir énormément d'artistes peintres pour la plupart du temps ñeneen ñi nekk ay autodidactes ñeneen ñi nekk ñu nga xamante ni dañu dem jàngi loolee nga xamante ni moom moo di art plastique kii nag mu ngi wuyoo ci turu moom nag naroon na fee ñëw mais dafa am euh, indisponibilité à la dernière minute pour pour expliquer ñu vraiment comment il fait pour peindre sant même voir li nga xamante ni moom moo di objectif am mu nekk lu doy waar ndax ni ñu ko gisee noonu ci euh, euh, vidéo bi il peint souvent wan ginnaaw li nga xamante ni moom mm-hmm. moo di tableau bi comme mën na peindre euh, tableau bi euh, sori ko lu bari ci kanam mu jël loxo yu wërale ko euh, tàmbali liggéey mu mel ni c'est un artiste vraiment na bu lii nag la ñuy woowee artiste surtout artiste peintre parce que ñoom dañuy faral di différencier wu bu baax a baax ak yeneen artistes yi moo xam waykat yi moo xam ñeneen ci cinéma mm-hmm. moo xam ñeneen ñi nga mm-hmm. xamante ni ñoom ñoo nekk ci fecc mi wala lu ko wër mais les artistes peintres vraiment c'est des gens très particuliers ku ci nekk nag ak inspiration Euh, booy peindre waaye itam ku ci nekk ak ni nga xamante ni noonu ngay defee sa ay performance lii moom nekk na lu doy waa ñu découvrir ndoo ko nag ak les téléspectateurs de la 2STV incha allah dinañu ko fi dalal ci suñu euh, yeneen i chronique pour mu expliquer ñu parce que je pense que moom rek moo ñu mën a wax comment il fait pour pendre à la perfection encore euh, sans même voir pour la plupart du temps dëpp tableau bi surtout ñu ngi ah, koy gis il a peint Nelson Mandela d'une manière vraiment Euh, d'une manière vraiment très très très jolie et bu fi toogoon xëy na dinañu décortiquer yan euh, élément lay utiliser pour def yooyu les euh, performances waaye itam ndax autodidacte la ndax daf ko jàng ndax lu mu judduwaalee la ndax don la ndax dafa jékki-jékki rek commencé di def magie parce que lii ku mel ni MRK bu ko gisee mën na jàpp ne magie la magicien la wala charlatan am na ñu nga xamante ni du ñu koy faral di gëm ñu ne la artistes yi wéruñu wala ni ñuy mais néanmoins il faut savoir que dès comme lui moom euh, man c'est la première fois que ma gis ko wax naa ko léegi dem naa exposition bu ne gis naa euh, tableau d'art bu na gis artiste peintre bu ne waaye bi moom c'est ma première fois et j'espère qu'il y a beaucoup d'autres personnes comme lui parce que lii moom c'est un don extraordinaire seen Bon, malheureusement, on n'aura pas les performances. Ibrahima <laughs> Bal. Xale yi dañuy topp ni mais kéemtaan la. don la don don don yàlla dafa ah, dafay nu ne da koy maye ah. doomu aadama mm-hmm. surtout et puis portrait euh, portrait Nelson Mandela bi on dirait une photo mm-hmm. surtout ci li dessin la da nga mm-hmm. loolu mooy art visuel ca à dire tu prends une personne wala un personnage nga daal di koy peindre à la perfection. Mhm. ku xamul bu ko gisee jàpp ni photo la bokk na ci li ñuy woowee art visuel. jërëjëf mhm. da ngay am maîtrise ci li ngay def. Mhm. artiste day gis benn tableau weex tàll def ci benn tomb rek dem yoonam. exposé nga ñëw mu ne la nga ne poobar la fekk du poobar. jeex na. Mhm. et encore ce genre de pointe yi de de <laughs> point <laughs> nga ñoom de questions nga xam ne bëgg nañ ko ko poser. Mhm. Euh, ñun démb bi ñu gisee affaire yi daf ñoo jaaxal donc mhm. euh, ñu dalal ko fi. Euh, incha allah jeudi prochain tout en espérant de passe passe wala. waaw surtout loolu <laughs> foofu boppam nag boobu on un grand coucou espérer que jeudi prochain. prochain dinañ ko dalal ci suñu chronique Seynabou mm, laxaat man bala may ñëw ci yow bëggoon ñu kii rek tuuti ñu daal di hmm? ñu daal di yëngal kii tuuti rek doog a ñëw ci yow waaw est ce que duñu continuer est ce que duñu yëngal tuuti doog a ñëw ci benn kii bu a nekk tamit <coughs> kon kon kon kon non balaa ñu yëngal koy présenté mu daal di nuyoo bàyyi ko bu nuyoo nuyool ba noppi <laughs> mbokk yi kii mooy Galas Bongo <coughs> ay ca jëlal doomu ñaari tali nuyoo acca di tam bëri non laxaat sama xarit. ay waaw dégg nga. Mhm. dégg nga moom sàkkal. dëggal ma loolu xool ko toogatul. mënatuma toog nag. perturbateur. tamaam eh, tamaam élément tama du <laughs> ah, mais loolu. Hmm? parce que mooy tëgg tama. Hmm. da nga war a retaan pour am charme bi. waaw dëgg la. boo xoolee. looloo toog li nga mm-hmm. sama xarit nekk sama rak nekk sama frère. moom fépp fu ma dem. Mm-hmm. boo ma xoolee da nga koy gis sama ginnaaw. kii nag mooy xaali tamani borom sàkkal. léegi xaaxaa yi borom tamay wax xaali variation borom sa bokk bi moo tax xam nga day nee na yéen ñi fi toog ñëpp su nekk mu sa sant. nuyu na leen ah nee na émission bii. addinaa mm. koy wër. nee na ñàkk koo seetaan wóorul dégg nga ni mu xawee yàgg parce que nee na émission bi li mu làmb moo bari tubaarkalla macha allah lépp a ngi ci biir képp ku seetaan di nga si gis sa bopp muy culture rek leneen ak actualité actualité yeeg li xew daal maanaam ku bëgg am li nga xam te ne mooy information yu leer te wóor ce matin ngay xool jërëjëf nee na li ko jaaxal la ba jaaxal ko mooy bi ñu ñëwee plateau bi sama xarit bii di ko présenté. Seynabou Ndiaye Seynabou mi nga xam te ni nee na bi ko gisee rek ko tegoon Beyoncé. <laughs> dëgg la. maa gaaw ñu dell si waat. waaw kon euh, xam nga man bëgguma génn fii de. yow de bëgguma génn fii. naa dem rek déedéet wóorul. Ah. bëgguma génn fii de nga ñëwaat de. kon Badiane may ma sama élément <laughs> may ma sama élément Badiane. nga labul ma benn jàmm. waaw mbindaan ak patron daal li ma ci xam li ma ci xalaat mooy mbindaan mi yem place bi mbindaan patron bi yem place bi patron mais mbindaan euh, yoo xam daañu nekk ci ba da am fa ceeb boo xamante ni ca patron ba lay doon mais am na ci patron yoo xam ne tam dañu jubadi parce que dañuy nekk seen bi naan ba liggéey loo ko ba weer dee ñu war ko fay jiñ ko caj te fekk se seen dooma ko def wala sax dañ koy complot loolu la ba tey àq la waaw yor sa mbindaan it bu sa jëkkër wàccee lu war a defal sa jëkkër ni ko kaay defal ko ah loolu yoon bu yàggee mbindaan bi man naa nangu sa jëkkër parce que ki lay jox ngay lekk ki lay jox ngay naan nga tëdd fële ah, bu yàggee kooku lay miin moo tax kenn ku nekk da ngaa war a am rek sa place. ki nga xamante daal ne ci mooy fóot mooy bale mooy raxas la waasat say jërëg say lépp nga attanan lekk ba suur dem mais ko ca àll wala nga de nga am nga kii la dama bokk ak mbindaan te mbindaan yi tam. donc mbokk taalibe yi dama leen def kenn ku ne daal boo yemee sa place. respecté sa morom mbindaan mi man naa dem sax ba am cër boo xam ne ci kër ga. wala mu cëral patron fu mu dëkk. te loolu ànd bu rafet la ko def ñaar daal bu ñu àndee nañ bëgg te wóolonte aussi wóolonte bi moom moom mooy. waaye jàpp sa mbindaan def ko comme te sax am na loo xam ne sax am na ñoo xam sax duñu fay balaa pay nga jot ñu ciy nekk sama seen ordre na nangam ak nangam bu dul génn xale bi mel génn dem loolu la ab julli daal dafa am loo xam ne la war a comporté loolu daal laa ci doon dugg wasalaam. gars yi dal leen dal leen dal leen bàyyi leen tama yi. dal leen alaaj da nga doon def étude tama. <laughs> allah akuma waaw séeréer bu Ndiaye comme ni ko sunu élément wane. Mhm. tey dama dugg ci biir kër yi. nee naa waxoon naa démb que ci semaine bi yëpp damay des ci biir kër yi li fay xew. Mhm. Euh, bëggoon naa nag professeur toog fi jaxate parce que boo xoolee ñoom mhm. ñoo bokk même euh, kii bi ñuy waxtaanee ah. alors euh, min daan yi dañu la ñu woowee min na daan doole sax la ñuy wax. ak seen diggante seen patron yi. soo xoolee des fois dafay am ay problèmes yu ciy am. problème bi mooy xeebal des fois da am. te liggéey la comme liggéey yëpp. Mm-hmm. tey jii ñun dañuy solu ñëw télé am na ñoo xamante dañuy solu dem ci euh, ci seen bureau. Mm-hmm. ñoom tamit dañuy solu dem ci biir kër yi pour liggéey. Mm-hmm. donc foog il faut il pas que mu am complexe. parce que boo xoolee yenn tuutil yi nga xamante dañ lañ koy tuutil yenn euh, dara xew ci kër gi ñu du ñu xalaat kenn. balaa ñuy xalaat kenn dañu naan bon bala. te boo xoolee loolu bëri na ci ñoo xamante ni dañ koy def ci biir kër yi. donc dañuy dañ dañ ciy waxtaan rek di di di fàttali patron yi nga xamante ni ñoom ñooy liggéeyal liggéey ak ak bon yi ñu xam ni euh, ay nit lañu. dañuy daan doole comme ñoom ni ñuy soloo tamit di dem feneen am ay patron am ay directeur am ay directrice mm. foog ñu bàyyi ci xel te euh, ñu ngi xeeb loo xamante ni lu am solo la parce que yow ki ngay xeeb. daf la amal njëriñ. ah bu baax sax. parce que koo xamante ni yow bu balewul kër gi. Hmm? balewul néeg bi toggul la yow nga añ. balaa nga koo xam tabaski jot ba ñu dem tabaski. ba ñu dem da ngay xam ni yow euh, da ngay galérer carrément. donc ñooñu dañ lañ war a fonk xam ni. Hmm. dañu am solo dafa am liggéey bu am solo boo xamante ni dañ koy def ci biir kër yi. Hmm. donc man fu mu toll nii mënatu mënatuma toog. li tax mënatuma toog nag damay génn léegi ci sujet bi parce que man lii def maa ñor <laughs> tama gii laa bëgg dugg sama invité bi waaw loolu moom benn kii la rek ndax fu mu toll nii mënatuma mënatuma ci loolu daal euh, kii nag <laughs> toog taxawtuma galas bongo ah. kii mooy galas bongo galas bongo mi ah. bokk ci askanu jéeri jéeri moo moo ngi nii di gone ñaari tali kii xale VIP yi soo koy dégg. kii moo leen di tëggal. ndeysaan barki Serigne Bamba. ndeysaan gis nga Sidi Diop fa mu tàmbalee woon. nga xamante ni eh, da doon mbapat. dëgg la la maanaam li ñuy wax mbapat. nekk ci tànn béer yi. nekk ci ngénte yi. moom mi Sénégal amul ku ko xamul ci Sénégal. ak bongoom bi laa bëgg man man. ndeysaan bongoom yi. ñëpp xam nañ ko waaye yàlla dafa dogal li Sidi Diop daan li maanaam Sidi Diop na mu daan mbapatee. moom ca la ne. Mm. génnewul clip vidéo ndeysaan génnewul duggul studio ndeysaan waaye képp ku nekk ci réew mi ta baax ndeysaan xam na ko maa ngi ciy nuyu bi baa wàdd hmm. xam na ko sama xarit la Galas Bongo ah. nuyul waa Sénégal waaw laxaat maa ngi nuyu waa Sénégal franchement parlé li nga wax yëpp rafet na maa ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal suma ñaari waajur fañ tëdd yàlla na leen gën a fi ñu jógee di nuyu waa ñaari tali waa benn tali bi nga xam te ne foofu laa jógee ak Grand Dakar hmm. comme ni ko waxee tam di nuyu Biba Wade Biba Wade doomu Doudou Wade député bu mag boobu parlement sama xarit muy sama jigéen sama xarit bërki dem rek ñoo nekk mhm. di nuyu tamit euh, ki nga xamante ni mooy sama yaay parce que ma nee suma yaay la suma yaay bopp la sama xarit la parce que lépp lu am këram man lay woo si kàttanu yàlla muy Adja Marème Ndiaye bu 2STV mhm. di fa jaare nuyu ñoom Sala mhm. Jeeba sama xarit boobu nga xam ne lu mu xewle woo maa ko tëgg ma nit macha allah. Mhm. di nuyu ñëpp daal di nuyu yéen ñi fekk ci plateau bi yëpp. Mhm. di la xamal ni daal. fa mhm. tubaarkalla macha allah nuyu naa ñëpp ñu toog fii. maa ngi kii xam nu ma ko tuddee du ma wax turam. ministre de la jeunesse laa ko tuddee. dégg nga li ma tuddee ko il est beau il est gentil. <laughs> mais il donne pas de l'argent. non day doon il donne pas. <laughs> non day doon waaye Nafi nag. Nafi gisoo. ni mu doon def sànq doo ko yóbbuwaat. borom verre bi Nafi. yóbbuwaat ko ñu xool ni mu doon def sànq. xale bu jigéen bu ci yàkkamtiwul sa yaay jàll dëkkal waaw sa yi eh da ngeen ni tabax waaw bàyyi leen tabax ah, nabi tabax sa ko suul day tabax tabax tabax ñam alaa ko bar kañ nga tàmbali métier bi waaw bongo yi nag <laughs> buñ ko tàmbalee léegi bàjjen may ñu rek waaw léegi léegi ñu daaneel waa ayca buñ ko tàmbalee léegi xaw na def jiir macha mhm. allah mais comme ni ko waxee nii ñu ngi siy yëngatu bu baax a baax nag mais fi ñu gën a xamee suñu mooy ngénte yi mhm. takk yi mariage yi mhm. tànn beer yi lépp bon tey sax dama ko xaw a simple ndax sinon dama doon indi juróom benn bongo ñetti tama waa mais laxaat moo ma yemale mhm. moo ne ma nañ def lu yem rek ah. mais dama doon indi juróom benn bongo ñetti tama mhm. ak benn bool d'accord euh, joxe sa numéro téléphone pour ku la bëgg waaw waaw ku soxla galas bongo mhm. da ngay def 77 033 61 40 77 033 61 40 jeex na jërëjëf ñu gërëm ñëpp ayca may ñu ñu jeexal merci beaucoup et à demain kon na xam ne ñu toogatoo